dëgg dëgg dëgg Saliou gu si yaayam ba tey. dëgg wa Baye Mouhamed Seri Dado sama waa ji. ndeysaan. gi te la belay di saare. ay waay. maa benn la belay di saare. donc yaay Dawda. ey Cissé Cissé. Eh, Alaaji yes. dégg dégg dégg mooy sa baay. ndeysaan. Saliou ay way la bëgg a dégg te la ngay way. waaw. Cheikh Ahmed Cissé. koy bëgg a way. jirima jawaalo jirima jawaalo i Malick Fanta Ndiaye iñaan wóorul iñaan wóorul de iñaan wóorul iñaan wóorul sama rakk jeey ndeysaan Cheikh Ahmed Cissé yow da gore respecté ndeysaan sos sama rakk jeey Cheikh Ahmed Cissé yow da nga gore respecté ndeysaan oh bay alaaji Malick la woy sa baay ndeysaan yaay xadi soxna mooy sa yaay jiri ma ca waalo jiri ma ca waalo mu ne xam-xam bi Mali Fanta Njaay sama dama cee toog dam ciy toog di fayu di ci fayu xam-xam ciy toog xam-xam bi dang cee toog. andalaa buri. borom andalaa buri. maa ngi nii. li sàkk di bañ. borom ñaari fetali ngemeñ laa jiit. fetali ñaari ngemeñ laa ci am. dang toog di fayu. andalaa buri. andalaa buri. déggal loolu. li la yàlla jox. yaa ko jox ñi la yaakaar dese ko nga ku seqal teraanga xam na songoru yaa yeween gore Cissé waaw waaw ma Cissé ale ma Njaay nga des jaay jaaxa jaaxa jaaxa jaaxa jaaxa Cissé jaaxa Cissé jaaxa Cissé ma demee wooy rakk ji rakk jabel doomu yaayu kan doomu yaay mu amet fan laay jiin xool waa Kaolack ana waa Kaolack Zena Wali sa papa ngi nii Biran Cissé pari ma ngay sama moo jaayoon Gambie tubaab bi Ahmed Cissé kontaan naa su ma lay woy su may woy ba mu yàgg lool di la woy damay kontaan di la woy damay kontaan ndeysaan ndeysaan ñu dugg du dañ bopp su la neexee dugal du dañ yow du ma la may dara ndeysaan ndeysaan xoolal délégation bu rafet bi dang ci ñi baal. dëgg dëgg dëgg li ma Pape Boye amul fenn waay. ca ngaari njarmeew bismillah heure nandite jot na fii ci compte nandite yi sëriñu nandite yi ak euh, taalibe nandi yi ma di leen nuyu bu baax nag di leen ziare yéen ñëpp ah. bu leen may wax ustaas duma ustaas bëgguma loolu man sëriñu nandi yi la murit bu doonee nandite mën na doon suma taalibe tijaan bu doonee nandite mën na doon suma taalibe ibaadu bu doonee nandite mën na doon suma taalibe mais lan mooy nandite nandite mooy ki xam ne yàlla lu ko neex lay def yonantu ci dëgg la nekk nit ñi yàllaay seen buur kum neex yërëm kum neex jéggal nga màndu ci ñoom gérer say bàkkaar looy wax sa intérêt tax looy def sa intérêt tax koo mën a dimbale dimbale ku la tooñ nga baal ko ku la yàpp nga téegal ndeyam li mooy nandite man ñii laa doon seen sëriñ yéen a ngi dégg maanaam man su taalib ku leen tooñ den lay baal ndax tooñ jéggale waaye ku leen yàpp ñu téegal sande boo leen fenalee ñu duulal la buñ sëyee ci kër ñépp lañuy jox cër ku leen joxul cër ñu delloo la sa palaas teg la sa ànd sëy seen sëy ba mu neex duñ génn duñ fay boo xamul seen valeur ñu ñaan la baat tas ñibbi bu kër jëkkër neexee mata kër baay su may taalibe mooy femme indépendance yi nga xam ni bi jàng jotee jàng neen bi dóor waar jotee dóor neen waar ku leen saf la ñuy génnal ku leen neexul du ñu génn ak yow su may taalibee mooy ñii boo amee jikko doomaraam nga tooñ leen ñu sol mbubbi doomaraam wàcc doon doomaraam jëflante yu ba pare ci classe ak élégance yéegaat fañ nekkoon ndax classe yu duñ benn école bi rek moo ñu boole kon bu ma kenn waxati ustaas duma ustaas pour wax ci leer Euh, Alex Thiam gis naa sa lemotif nga def sa benn taatu neen tëmbal sa yére di balang balang sa koy bi jigéen ji jàpp mais ci jàpp bi la jigéen ji weeree parce que bi mu ko jàppee rek ci leen xam ne koy bi dafa sew te gudd te koy bu sew gudd duy faral di neex day metti biir parce que day jam ba sori te du fees espace bi te laal dëgg pour mu neex faaw kubéeru bajo bi koy gi muur ko ba pare muy jamb ci biir lu mu am baax na kon bi xale bi jàppee koy bi rek la yàq maanaam bës bi nga xam ne moom la vidéo bi waroon a def gis nga bi muy lëmbal noonu di def nii boobu xuuxal jeeg la tudd jeeg jëpp tiit nit naan ay eh, Alex mi mu jàpp mais bi mu ko jàppee rek leen xam ne dafa sew kon bu ñuy créé waat bés je dis pas que yaa ko créé ah ma suma analyse laay wax suma xalaat parce que suma taalibe nga beneen yoon bu loolu lu mel noonu di am bu mu jàpp <laughs> na bàyyi rek mu yëngatu parce que bu jamee day jël day jël mbubb bi ci suuf jël mbubb bi ci kaw su yëngatoo ni mbubb bi day yëngatu bu demee góor mbubb bi yëngatu day mel ni lu am doole mais boo jàppee euh, après day wane ne dafa sew daal su boobaa loolu du am sens muy benn ñaareel ba façon buzz yu mel nii su fekkee yaa ko tey façon buzz yu mel nii bu dee yaa ko tey dama bëgg nga conscience que mun na laa may bajo waaye mënut laa may jigéen lan mooy bajo mooy ku bëgg daanu rek gis koy bi xemem ko ñëw pour daanu kooku moom mën nga ko am laal ko lu neex surtout femme indépendante yi nekk France boobu du souci mais bés boo demee ba xam lan mooy njëriñu àdduna ba bëgg soxna su toog doo ko mën a am bajoog jigéen duñu benn bajo ci jigéen la bokk mën nga am jigéen mu mat la jigéen te doo laal bajo xawma kan moo la bloqué de da mënta gis live bi wala da nga mënta commentaire bu dee commentaire miite la tudd bu dee mënoo gis bloqué la tudd wax ma ban la ci ñaari danga ngaa mënta commentaire wala da ngaa mënta gis live yow mi ma wax waa ku ma bloqué yow laay wax loolu tontu ma ma xam donc tey Alex bu fekkee lii lépp yaa ko tey mën na la may bajo bu ne nag ndax nit ñi ñoo moom seen bajo lu leen neex leen ciy def mais nag bis boo demee ba xam ne lii mooy njëriñu àdduna sëy du bajo rekk waaye am jigéen la mën na laa jafe mais su fekkee ne nag tey woo ko daf la rëcc danga doon am fën comme nit nii rek euh, affaire bi rëcc mu génn ci internet bi nanga nga siggi te xam ne ku mat amul ku yàlla suturaal rek a fi am nga xam ne yàlla moo la suturaalul te ñàkk sutura boobu yàlla defak ak yow am na raison raison bi mooy Euh, xel ma bloqué la suma bopp AB Bachir maa la bloqué yow suma live miituma la dama la bloqué waaw yow nga ko dem ñu continuer suñu waxtaan tey su fekkee ne tey ko danga doon am fon yéen ñiy commentaire naan ma day xool commentaire maa ngi koy gis maa dul bañ a bañ a dagg li may wax ngir concentré waaye lu ngeen bind gis naa ko su ma dutoon gis duma bloqué ñeen ñi kon dama bëgg su dee tayuloo ko yow Alexis Thiam nga xam ne njuumte rek la siggil ta dem te xam ne yàlla moo la suturaalu te li tax yàlla suturaalu la am na lu mu bëgg ci yow loolu mu bëgg ci yow nag mooy daf la bëgg a jegeel boppam ndax yàlla du nattu kum amul soxla ci yow loolu laa ci bëgg a wax euh, beneen ba ca des dama bëgg ngeen xàmmee lu am solo bëgg ngeen xàmmee lu am solo mooy jigéen ju bëgg am jëkkër ak jigéen ju bëgg a doon jabar du benn dama bëgg ngeen déglu xam-xam ndax niveau bi may waxee ku ma dégluwut ak xol bu dal sa xol leerut dégluwoo ma ak xel doo ma dégg dama ni jigéen ju bëgg jëkkër ak jigéen ju bëgg a doon jabar du benn jigéen ju bëgg jëkkër ku ko takk amoo jabar day tas mbaa ba du neex jigéen ju bëgg doon jabar nag fu mu sëyi bu kow amee dañu xam ne moo nekk ci dëgg ñépp a ko yërëm ànd ak moom léeg-léeg jigéen sëy ci kër sonn fa loolu waa koñ bi bëgg ko lu ñu am jox ko lu ñu xam wax ko parce xam ne ne jigéen ju bëgg doon jabar la lan mooy différence bi tàppataleen laay fi ma ñëw ci loolu ci lan mooy différence su jigéen bu bëgg a doon jabar ak jigéen ju bëgg jëkkër soxna si na nga def mbaa yaa euh, ci jàmm. nga ne lan moo la dal lan nga dund. Euh, en fait ma soo mënee wax bu baax nga génnee sa casque boobu di yëngatu dina ma gënal parce que sa wax ji leerul dangay tegg teggi bi nga wax bu baax ma mën a dégg ok. defuma casque. defuloo casque loolu leer na. lan moo la dal ak kañ la la dal. ma nekkee xale man bu fekk je me rappelle pas euh, exactement âge bi mais xam naa ay neuf ans yooyu la amoon sama doomu di jaay la ma ko mës fàtte. may ma tuuti ma laaj la may ma tuuti nga ne biñ lay def lañ la def yaa ngi amoon neuf ans. waa xam naa âge boobu parce que exactement âge bi moom xamuma ko. ok. Ah, eh, waaju eh, baax bloqueel ma laay laay xaw ma nan ki bind noonu naan yow nangam piir nga bloqué ko mu génn live waaju baax bloqueel ma ko yaa gën a gaaw ci bloqué léegi li ma bëgg a laaj. waaw. mooy lañ la def bañ la koy def kala ko def. bam la koy def à peu près neuf dix ans nga am. waaw. ok ki la ko def sa doomu nijaay la nga wax. nan ngeen bokkee nan la doonee sa doomu nijaay. papaam ak sama yaay ñoo bokk. lan leen bokk yaay ñoo bokk yaay d'accord loolu leer na fan la la ko defee. suñu kër. boobu ana sa yaay ak sa papa. sama yaay ak sama papa nekkuñu nekkuñu fa nekkuma woon ak sama yaay sama papa. non soo waxee nekkuñu te nga dem sa kër la mooy dañoo divorcé. wala ok dañoo divorcé kër kër la woon sa kër yaay wala sa kër papa. sama yaay. sa maanaam sa yaay ak sa papa dañu divorcé yow nga ànd ak sa yaay dem sa kër yaay. waaw kay sa doomi nijaay nekk ci kër gi moom jamono boobu ñaata at la am à peu près. xaaral xaaral même même yéen ñiy bind jooy baal leen ma ngeen bàyyi ko da ngeen bu leen mute de modérateur bu leen mute de may leen ma wax ak ñoom may leen ma loolu baal leen ma ak ñoom bala ngeen di mute yéen su ngeen bindee jooy dafay génne live bi daf koy wàccee bàyyi leen loolu da ngeen di joxe kër mais ngeen jooy seen xol wax naa leen ko pare naa ci waaju baax ku bind ku def jooy rek mute leen ko balaa ñu leen di miite nag wax naa leen lan la bëgg ak lan la bañ ku lu def ko ñu miite la waaye su fekkee da ngeen bëgg a déglu kuy wax may live bi doole man muy wax suma baat egg fu ne ngir jigéen ñi ak àddina da ngeen di joxe kër te bañ a jooy wax naa li may wax pare naaj yéen modérateurs yi buñ sonnul ci joxe emoji jooy bu leen sonn ci bloqué parce que ñi maa ngi wax ñu koy def ça veut que ñoom ñoo ko tey ñoom ñoo ko tey ñoom la neex su ñuy def lu leen neex yéen da leen miite Euh, jamono boobu nga ne yaa ngi woon sa kër yaay sa yaay ak sa papa tas leen. waaw. ok li xew nan la xewee ak kañ la xew. léegi man exactement li ma ci rappelé wu laa lay wax moom da doon ñëw tout temps su ke nekku ci kër gi mu dugg néeg bi yi nekk woo ma foofu di ma tuwaate am na bi ma mujjee rappelé wu dafa ma duwaate boobu man ak moom ñoo ngi tëdd ci biti ci ëtt bi kenn nekk fa mu lëndëm kër gi ñëpp tëdd mu may duwaate ba ma sax cugal ñu dem si douche bi heureusement ma bañ après mu ñëwaat tout le temps di ma ko def chaque guddi chaque guddi après bu ma ko def chaque guddi chaque guddi di ma duwaate bi ñemew ma ko wax kenn parce que famille bi dama doon xalaat problème mënu ma ko wax kenn mësu ko wax après bi ma demee ba nekk mag nii sax ay jooga xam ne ndeke kii lu bon la doon def léegi ñaata at nga am léegi am naa trente ans mës nga am jëkkër wala mosoo am jëkkër am naa jëkkër ci kër boo xam ne sama yaay moo ma ci dugal man bugguma ko léegi tu léegi def yàgg naa ci sëy bi sax mais daf may fàttali xawma bugguma teg door bi fi ma jaar mais dama dem ba waa ji mënatuma ko di géré buggu bugguma ko musuma ko bëgg am nga ci doom wala amoo ci doom ok ñaata doom nga ci am benn. d'accord ki la doon def loolu moom kenn rek moo la ko mus a def wala am na ñeneen ñu la ko def. ma fat ak fi ma doon jàngee alxuraan mais kooku doomu sëriñ bi la mais moom du sumi sa yére yëpp ma bàyyi ak sama silip muy yegg sama kaw di def ay mouvement def ay mouvement mais foofu dañ fa doon dugg di jug di jël heure boobu ñëw rek mu den la jëlee woon sa kër yóbbu la ci benn daara wala danga daan jóge sa kër di dem daara ji di ñëw dama daan jàngi di wàcc ok danga daan jàngi di wàcc waaw léegi doomi sëriñ bi moo la daan violé mais moom jotul yegg sama kaw moom. sama moom day génnee kooy bi teg ko sa kaw si slip bi noonu di def mouvement comme ñaar ñuy laalante. daf may lay tëddal tëdd sa kaw. waaw ba mu ko defee defaat ko après day am kuy ñëw parce que foofu dañ fay jaabante tout temps di jël si téere. ok léegi da daan daanu sa kaw wala du daan daanu sa kaw. waaw xam nga déedéet. no bi nga magee ba xam daanu mémoire bi ñëwaat sa xel ndax sa xel xamoon nga ne daanu woon na wala daanuwul. déedéet du woon jot daanu. ok. léegi daf maa dem ba sama jëkkër bi bugguma ko peut li ma ko buggul woon depuis commencement bi mooy répercuté léegi nii si moom mënatuma ko supporter heureusement man ak moom sax dëkkuñu. mais mënatuma ko supporter moo tax damay dem bay def ay ñaan pour ñaanal ma sax pour mu pour ma parce que mënatuma ko supporter. mais balaa nga daan sëy danga daan am far de daan leen nopp. sama problème mooy comme góor ci waxtaan kese laay nobante ak góor mais su demee ba bëgg wéet ak man pour def ma dara rek après loolu di ñëwaat sama xel dama lay bañ. dama lay bañ mais su fekkee comme ku waxtaan ak man tout le temps di ma defal di waxtaan ak man man kooku laay gën a nopp damay sentir ni que dama lay nopp te malheureusement sama jëkkër bi aw ma si moom loolu du ñuy waxtaan du ñu amul amul ak man affinité boobu mais man góor instant bi lu ma bëgg si moom mooy ku may woo waxtaan ak man di ma defal di waxtaan ak man di kafak man di reetaan mais suñ demee ba war comme nekk en tant que góor ak jigéen rek dootuma si bëgg dara dara dara dara dara. maanaam yow loolu daf la traumatiser ba yow bëggoo physical attraction ak góor. déedéet bëgg naa di waxtaan ak moom muy kafee mais wax kese mu yam foofu amul boobu laa am si su may bëgg nit. mais le fait ngeen war a toog ba jëflante entre góor ak jigéen. du ko supporter. même sama jëkkër bi durant li ñu damay forcer rek ñaata at la sa bi def ak sa jëkkër. yàgg na def na presque dix ans. dix saa yu ngeen amee rapport da nga koo forcer waaye du loo bëgg. waaw ah, déedéet damay damay jéem a simuler rek di def comme si bëgg naa mais plaisir bi muy dégg sax si rapport loolu la am. xam gisuma ko mais juste pour moom moo tax ma koy def mais instant bi mënatuma ko supporter sax li ma dimbali mooy moom nekk fi dafay tukki ay at après mu ñëw quelques mois ok moom su ko wax moom su ko wax kenn musu ko xam ok léegi nan la lay def nga gis ay nit di kontaan seen xol di neex ñuy bëggante di nekk ak seen jëkkër di kaf di ree yow looy yëg soo gisee loolu nit yi di kontaan te yow doo kontaan damay xalaat ni peut su ma gisee ku ma bëgg mën na am mais man wala ma dem ba góor di ma approché damay jàppe man kenn bëgguma si àdduna kenn bëgguma loolu moo tax man instant bi bëggatuma nekk ak sama jëkkër maa ngi am espoir ni que peut tasee ak koo xam ne bëgg naa ko mais instant bi moom sax bugguma dara si affaire góor góor yi suñu ma gisee dañ may bëgg rek ku nekk di ma wax dama laa bëgg te may attiré man duma sant dara si góor soo esoo wax bi may wax ak mën naa sax di waxtaan ak góor ba ma jàpp ne dama ko nopp mais su naree toog ak moom wala contact physique bu naree am man ak moom après damay wax ni ko non non nopp ma ko baatam kese laa nopp mais du jëmmam bugguma jëmm góor nekk ak góor bugguma ko mais damay soxla quelqu'un muy waxtaan ak man di ma defal mu mhm. am ko moo ci kër gi moo tax ku ma gis foog ni maa ngi si jàmm muy kaf di réer sama tëdd nelaw dama la bëgg a laaj ñaari question mais dama bëgg nga wax ma dëgg est-ce yaa ngi julli maa ngi julli yenn saa yi ngay julli wala saa yu julli jotee di nga julli ci wax ma dëgg rek te yàlla tax daan dama daan toog duma julli après su affaire yi ñëwee di fees sama bopp ma recommencé waat mais nii nii nii je pense que même julli bi moom may dimbali nii nii barke alxuraan maa ngi julli huit la axir bi sax moo may ma soulagé tuuti jàng nga tuuti alxuraan wala jàngoo tuuti ci alxuraan tuuti rek fàtte naa lu bari am na saar bu tudd duha wa duha wa layli iza sajja maa waddaaka rabbuka wa maa xalla mën nga koo jàng wala mënoo ko mën nga liir français wala mënoo liir français ah, fan la sa jàng yam am naa dangay dem ci internet bi mhm. nga bind suratu duha mhm. Hmm? Mm-hmm. yónnee naa la ko nii suura duha mm-hmm. soo ko copier mm-hmm. nga dem youtube nga tàppe suuratu duha di déglu di jàng soo ko defee ñaari fan su la ñëwalee rek nga jàng suuratu duha déglu jàng suuratu duha sa xol bi dina dal sa xel dina dal sa dépression bi dina dañ sa traumatisme bi dina dañ saar boobu moo koy faj mm-hmm. Mm-hmm. soxlawuloo jooyaat soxlawuloo dara jàppal soratu duhaa rek même non non ndànk-ndànk munoo traumatisé wu parce que ñu ngi la doon violer temps xale traumatisme boobu yóbbee la ci munoo bëgg góor nga nekk ci problème yooyu ba pare bugg a la wala sa divorce mënta dem problème yi àdduna bu bëree ci nit te yëpp dangay jël one after the other foo toll rek def ko wax ko mu jeex foo toll def ko wax mu jeex fi nga toll léegi mooy sa traumatisme bi yàlla faj ko mu wér ba nga xam ne da ngay mën a siggi jàkkaarloog àddina fi nga tollu léegi mooy sa xel mën a dal sa xol mën a dal ba nga mën a xalaat fa nga toll yow yaa importance boo demee nag ba dal ba nekk comme nit ba xalaat ni nit ñi ba sa jooyu métti yi nga nekkee sa ronga yëpp fer ba nga amaat happiness di kontaan comme doomu aadama su boobaa nag nga mën a jàkkaarloo góor na ko dama bëgg a divorce parce que Sénégal ñooy ñoo xam ne seen diine ni leen arrangé rek tey soo noonu damay divorce ñu ne la lu xew nga expliqué ne den la doon violé ñu ne la du dëgg bi nga nekkee xale ba tey waxoo ko loo fa doon def nangam mm-hmm. nangam du demee noonu danga koy def benn par benn fi mu nekk nii you are the most important your happiness is all what matters sa mbégte mooy li am solo yow yaa am importance soo demee nag ba jotaat sa mbégte ba kontaanaat ba xam ne yow mii mbég nga alquran faj na la yàlla buur bi jàppale na la ba dalal sa xel ba pare divorce du weesu mais munoo traumatiser wu am problème am dépression di lijjanti divorce ci Sénégal mënta nekk yéen ñi nga xam ne yéen a am cas ngeen bëgg maa jot léegi da ngeen may bind préciser ma lan la su ngeen fi nekkee di bind ay enveloppe ak ay vocal duma ko déglu da ngeen may préciser man la diw den ma def nangam nangam laa bëgg a wax man dina la woo kii moom boobu ba tey mu ngee bind yow borom 78 246 noppalul de paragraphe bi ngay bind mënu ma ko boole live ak seetaan liir du ma ko def de gàttal la rek dama leen a conseillé ci lan na ma lii mu jeex jar sa bind paragraphe yaa ngi may seetaan yaa ngi bind du ma liir su ma numéro mu Aïssa Thiam pin ko épingle ko ci kaw numéro baa ngi noonu 78 la 471 57 01 su ngeen ma message da ngeen di bind lu gàtt ta leer salaam cheikh bi man la diw problème bii laa am dama bëgg wax ci live wala dama bëgg conseil bu dee ci live bi gratuitement la bu dee conseil danga may fay ku bëgg a yéeg ci live bi nga bind sa problème ma jël la nga yéeg ci tiktok bi ku bëgg a woote nga woote bu leen vocal bind leen su ngeen mënta bind jox leen kenn mu bindal leen ngeen préciser précise laa bëgg salaam cheikh bi man la diw problème bii la am lii laa bëgg a wax ci live bi wala privé bu dee privé danga may fay bu dee live bi gratuite la yéenay seet bu leen gënal yéen a ngi dégg 78 471 57 01 maa ngi jàkkaarloog ordinateur bi ku bind ma gis ku message ma tontu la soxna si yaa ngi may dégg. waa soo suuratu duha nga koy jàppanteel di ko déglu di ko jàng ba mokkal ko. wax duha dafay mm-hmm. dindi dépression dafay dindi traumatisme dafay dindi mental health daf lay jàppale. loolu maa la ko jox boo ko jàngee une semaine dina la jëlaat ci live bi ñëpp dinañ xam ne tane nga dinga kontaan dinga nga kaf di nga dinaa enregistré sa numéro ñuy déggante waaye li ma la wax soo ko defee yàlla mi nga xam ne moo la teg natt bi te wàccee alxuraan moo lay faj man mënuma dara damay nelaw di fàtte di dugg ci duus bi di génn man nit rek la waaye alxuraan bi ñu bokk muy téere boo xam ne dëgg la yàlla wàccee ko pour ñëpp fépp ba faw alxuraan boobu soo ko jàngee yàlla mi moom nit ñi moo lay dimbaleel boppam gëm nga loolu. waaw gëm-gëm dafay dimbale doomu aadama yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay masaw bu baax a baax dégg nga. amiin massa massa bul jooy. yàlla ko yàlla dimbale. yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla suturaal li ko dal métti na torop xam nga kaay yi ñu benn kii ku ñàkk jom la nee salaam cheikh man benn problème laa am damaa bëgg ku ma dëddale ak Serigne Cheikh Ahmed Cissé Serigne Nante Sénégal kenn mënu fee jooy kenn mënu fee ree boo reyee nit jooy loola boo jooyee nit ree la kii dama ñàkk fay dem mu ne moom ku ko dëddaleeg man la bëgg moom loolay problème am <laughs> xarit nag ku ñàkk fayda nga ku ñàkk ñàkk ñàkk fayda nga yàlla xam na loolu euh, mag leen di wax ne jigéen ju bëgg doon jabar ak jigéen ju bëgg a doon bu bëgg am jëkkër du benn jigéen su bëggee am jëkkër ak jigéen su bëggee doon jabar du benn jigéen ju bëgg am jëkkër mooy ki nga xam ne jàpp na ne ay ansam baax na weenam aju na jongoma la saf na neex na mën na togg te ku mu sëyal ku ne dinga nga bëgg mais dafay xaar ci góor mu uuf ko yiir ko defal ko jàppale ko kooku sorewut ak mbaraankat mais nag am na ci droit choix la rek jigéen ju bëgg a doon jabar mooy kuy seet ku am ngor ku am jom ku am personnalité ku àndal sëy ci ni ko yàlla bëggee j'utilise pas les mots seeta yàlla tax loolu amul mais sëy ci ni ko yàlla bëggee ngir ñu ànd defar seen àddina defar seen avenir yu doom ànd dem aljanna jigéen ñii dañuy am différence différence bu rëy différence bu rëy jigéen nag su fekkee ne dafa bëgg a doon jabar dafay mën a muñ na nga def bi ah yow de sa voix bi neex na ma leer na macha allah set na yal na sa jàmm yàgg yow lan moo la dal ak num la dalee en fait dafa am benn paa bu ñu loolu du ma ko bëgg a wax tem am ñu ma xam fii ci live bi. d'accord. Mhm. léegi moom dañu dañoo dëkkoon mais souvent nag sama maam dama ko daan yónni. Mhm. donc man su ma demaan dañ may yónni foofu ma dem fa mais su ma demee paa bi jox dara dafa yéegal ci kawam di la làmbatu mais affaire bi da daan des sa mais soo ñibbisee. yow sa taat bi tamit day mel ni luy yëngatu te temps yooyu xale laa woon awma ma sax su ma deful ay CP1 yooyu laa doon def mais man loolu comme nit ñi ni koy waxee nii naan affaire day metti day man dunduma loolu. xaar xaar am na lu ma dëj nga ne paa bi sëriñ la woon wala waxoo loolu. non du sëriñ. lan la woon. mais moom dafa yéex a takk jabar. ok paa bi du sëriñ dafa nekkoon ci koñ bi noonu rek. waaw mais dafa yéexoon a takk jabar. ok léegi lan lu tax ñu leen daan yóbbu ci moom ban raison. dañ ma daan ci moom en fait oh, la daan yónni ci moom. lan leen la daan yónni. waaw yónni yónni ci moom. lan leen la daan yónni moom jàng na alxuraan. moom jàng na alxuraan. Mhm. léegi soo ñëwee. sama maam dafay am yu may dox man may dem di ko yóbbu. yu mel nan comme lan quoi yenn genre yu yónni leen la daan yónni. déedéet damay bañ wax ab ñu xam fii moo tax. soo waxee li na la daan yónni rek dañuy xam yow la kat. yooyu bañ dama koy bañ a éclaircir ba bu leer la trop. d' accord may naa la loolu. yaa ngi dégg. Mhm. mais su ma ñëwee ñu ñu ma ci moom su demee ma dox ba yónni. ma jox ko ko léegi su ma ko teg ci kawam. daf léegi su la tegee ci kawam da lay simmi wala du la simmi. da tegee ci kawam day simmi si simmi. jël baaraamam. Mhm. jël baaraamam mm-hmm. teg ko ci sa taat. di ko bas. Mm-hmm. di ko bas di ko bas léegi soo ñëwee. Alo? Shila Diagne yaa si jàmm. waaw. alhamdulilah daa am lu ma bëggoon a expliquer en fait. xam nga ne yaa ngi ci wala xamoo ko. Mm, garaawut. waxuma garaaw na ma xam nga ko wala xamoo ko. waaw xam naa kay. continuer lan nga bëgg a wax. daa nga bëgg expliquer en fait. Mhm, expliquer. benn euh, benn lii la story. Mhm. Euh, dama ñëwoon fii Europe maa ngi Europe mais bëgg wax dëkk bu ma nekk sam euh, sam pap fi indi ma ak samay parce que loolu ma familial lañ ñëwee mais xam nga Europe moom. soo ñëwee il faut nga dëkk sa parce que mënoo ñëw rek am sa appartement bopp soit am sa dëkkuwaay bopp léegi dama dëkkoon sama benn kër tante sama tante moom ak sama sama yaay ñoo bu baax sax mais jëkkër ji moo nekk Sali Salaay léegi jëkkër ji maman yooyu nekk nekk daf ma na bu tawee maa ngi nekk bees si dëkk bi xaw ma dara dégg ma làq boobu ñaata at nga am loolu yàgg de deux ay quatre ans yooyu la ba may am seize ans. ok mais boobu xàmme na. xanaa da nga précoce. waaw. ok non non précoce da da nga daal ci gàttal. comme na. ok li ma bëgg a wax da nga am taat yu baax nuru mag bien bien vrai que seize ans nga am loolu laa bëgg wax. non jox nga ko macha allah te dama am wéyantaan macha allah. ok léegi mais mais sama tante bu jëkkëram dafa bëggoon jigéen nag. sa jëkkëru tante dafa alde daal maanaam dafa saas. Mm-hmm, mm-hmm. léegi temps yooyu noonu sama euh, a liggéey xale suñu jàngi jee sama tante bi après moom day tàggoo liggéey li ma gis maa fi nekk parce que boobu bés woon maa ngi doon xa parce que maa ngi nekkoon waiting mun na start college. léegi si kër gi laa nekkoon après après dañ ma doon bàyyi si kër gi ma nekk man kese. Mm-hmm. Euh, moom si su tànkee dem liggéeyi nag jafe da jàpp ne dafay euh, daal liggéey ji nañ ko liggéey wut juste day bàyyi jabar ji génn mu ñëw su ñëwee fekk na si biir néeg bi muy commencé laamu sama taat yi di laamu sama ween yi après su ma ko waxee ne que non tonton bu ma def nii man sama doom laa après may wax ne ma noonu. dama la bëgg affaire yooyu noonu lu te yegg sama kaw nag dama fenn mais mais daf ma def loo xam ne muy sama boobu ba tey te loolu laa ko jàppal ba mën a moom ne parce que dafa mën a yàq sama àddina en fait. te sama jikko tante yoonu yàlla la. ok daf daan. maanaam daf daan laal sa daf ko daan làmb. Mm-hmm. daf la daan daf non non mosuma baaraam mais mais su ma fekkee may taxaw di raxas boo soit may def dara te euh, dama féetee ginnaaw comme day ñëwee ginnaaw parce que bu maay féetee ginnaaw di def dara rek day ñëwee ginnaaw commencé. Mm-hmm. léegi un jour. Mmh. dama tëdd xam xam dëgg laa am dee parce que dama dem ba daf ma def comme genre euh, euh, daf daf desal sama bopp bi léegi un ma tëdd na di nelaw léegi ma tëddee noonu di nelaw nag mu mel ni tiim di ma jéem a foon rek ba affaire dafa dem ba ba ma en fait dafa dem ma. Mmh. mais affaire bi sonné moo léegi su ma tëddee day mel ne moom daf may tiim su may sangu mooy yëndu affaire bi daf ma jàppoon pour ma pour affaire kayit si la si oto bi ma xamal ne ma da ma bëgg a may ñu nekk boyfriend si koo xam ne am na forty five years old

xam nga su solee base sëgg soos takkee fer day feeñ xam na ne woon sax man xaw ma xaar xaar xaar xaar xaar yéen ñi ci live bi dafa ku ma yónnee benn vidéo mais benn vie nga ko mën a gis may leen ma ma pause dem xol vidéo bi ñu topp kaa maa ngi ñëw xaar leen ma ma ñëw. benn vidéo mais benn vie rek nga ko mën a gis may leen ma ma pause dem xooli vidéo bi ñu topp kaa maa ngi ñëw xaar leen ma ma ñëw. Eh. Ah, baax na. <laughs> allahu akbar yàlla na sutura yàgg ci àddina jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ah. allo soxna si na def. asalaamaaleykum. maaleykum salaam waaye yow yàgg ngaa jébbalu wala bi nga jébbaloo yàggul. <laughs> yàggul. jeex na lan mooy sa problème yow. waa en fait man sama rakku jëkkër. Mhm. rakkam bu jigéen moom rek la am rakk. léegi nag. xar nga ne sa lan. sama jëkkër rakkam bu jigéen. en fait sama jëkkër moom rek la am si si rakk. xaaral xaaral yow danga nga am jëkkër sa jëkkër. léegi daf ko indi Sénégal la nekkoon mu indi ko. Mhm. mu nekk fii ak ñun si kër léegi nag depuis bu ñëwee man daf ma sonal ndax nee daf ma bëgg. ah war na laa bëgg di jabari jabari magam nga. déedéet du bëgg boobu de daf ma nopp. non cas dafa compliqué. maanaam xaaral ma répété. yow jigéen nga. yaa ngi sëy waaw. sa jëkkër benn sœur la am jigéen rakk bu jigéen waaw rakk boobu moo ñëw ci kër gi ngay sëy ak magam moom magam waaw moom rakk ju jigéen ji sa njëkkee mu ne daf la nopp yow mu ni daf ma nopp sonal ma fu ma ko romb loxoom du téye loxoom su ma nekkee si waañ bi daf may fekk si waañ bi ni ma làmbaatu defi kenn xamul te man sama jëkkër daf bëri lu muy nekk ay déplacement la dernière fois sama biir néeg la ma fekk guddi maa ngi nelaw mu ñëw mu tëdd ci lal bi naan ma laisse-toi faire tu vas aimer. Ah. te man sama goro tellement que daf ma bëgg ba gëmewuma te dafa feebar moo tax man xaw ma lan laay def xaw ma dama koy boole xawma ma bëgguma tas mbokk. nga ne lu mu les les la nga ne mu ne lan. laisse-toi faire tu vas aimer nee na jigéen ak jigéen dinaa bëgg loolu. na ma trop sax moom ñaata at la <laughs> moom am na 42 ans. musul sëy. moom mus na sëy kay. am na doom. mu divorcé yàggul noonu amul doom bu mu divorcé yàggul moo tax euh, sama jëkkër indi ko. si problème boobu laa nekk. ma waxee mu naan ma góor bañul jigéen bañul loolu la may may tout temps. mu ne góor bañul. jigéen bañul nee na man góor bañu mu jigéen bañu ma. yow it jar de mag nob la rakk nob la. ay waaye dama jaaxle bu ma sabote. non non non sabote wu ma la. innama sabila min anfusikum laqad jaakum rasulun min anfusikum billaay dama jaaxle fi mu ne nii xaw ma laay def xaw ma lan laay def coupe solution xaw ma damay wax sama goro dama feebar te ma ko waxee te bëgg na ma a nga xam mun ma ko wax lenn loo xamante ne da koy yokkal sa goro bi feebar moo jur ki lay doxaan jigéen ji lay doxaan moo ko jur ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay law anzalna haza alquran a jabalin la raytuhu wax naa lu nekk nee naa ko man xaw ma lii wax naa lu ne def wax naa ko daf may bi may togg wala muy mu jël loxoom di ma làmbaatoog def mm. kenn xamul gi moom saa yu yu ngeen dina la fekk làmbaatu la saa yu ñu wéetee a pire mu duggee sama néeg guddi sama jëkkër nekk fi mu tëdd si lal bi doon dama tiit sax mu koy dàq mu naan ma laisse-toi faire tu daf la bëggoon a violer foofu moom kay daf ma bëggoon tëddee force nee na rek il faut ma ma ma xaw ma sax ma koy wax ma ma ñam comme su ma ñamee dinaa bëgg. léegi moom lu mu lay forcer daf lay forcer foon màcc sa ween wala màccal la. non pas eggugul si ay màcc ay ween wala yooyu comme na ma romb nii mu def comme genre dafa ma bëgg foon wala mu may làmbaatu yooyu noonu mais guddi bi mu duggee sama néeg jour boobu moom dafa bëggoon rek naa bàyyi rek comme ça mu tëddee ma. maa ngi jégalu ci kàddu yi. déedéet bul jégalu bul jégalu fii kat sa kat leen koy wax du problème fii kër gu baax gi la ay <laughs> eh, xaw ma man xaw ma xaw ma yii. yow yow yaa ngi am tuuti weccet yaa ngi yaa ngi am tuuti weccet wala nekkoo di am tuuti weccet yaa ngi am xaalis tuuti tuuti. si si maa ngi liggéey waaw damay liggéey kay. ok dama la. rek benn waay mu jaay la caméra ñaari caméra yoo xam ne kenn du ko xam day jël voix. Mm-hmm. am ngeen internet ci kër gi. waa si si am nañ. waa dala koy monteel dugalal la ko ci internet bi te kenn du xam nga teg ko ñaari palaas. Mm-hmm. sooy tëdd bul fay sa làmp nga taal sa làmp. d'accord su ñëwee def la ko caméra bi dina ko jàpp boo paree. man dina la boole kenn la ko ba film bi mat noonu rek. Mm-hmm. nga yónnee ko sa jëkkër toog noppi ñoo bokk ndey dinañ toppatoo seen affaire yow nga noppi mais boo ko waxee. xam nga ban lay leen lay layal. waaw. ndaw si mën na la feneen ndax lesbienne day mën a fen su la fenalee jëkkër ji danaan kii tayut ko dafa am dépression mais melut nii moo tax ñu indi ko fii pour mu yaru xam nga de da xam nga man ni ma déggee histoire bi dafa mel ni ndaw si dafa mhm. tas am problème ñu indi ko Sénégal pour mu dal. ñu indi ko France. France pour mu dal. waaw. léegi Sénégal la nekkoon. Sénégal la nekkoon. dafa divorcé. léegi ñu indi ko France. waaw léegi nag den bëgg mu changer vie am lesbienne gi nekkee woon Sénégal bisexuel di góor ak jigéen moom la bëgg nekkee France. ay léegi nag su dee yaa ngi may dégg mën naa continuer wax. waaw ok mën nga miin su dee bureau de femme. léegi nag. comme yaa ngi France da ngay dem jandi ay yu ndaw la naa la ko yónnee kenn du ko xam nga dóor benn fii dóor benn fële. wala nga jël sa téléphone def ko mode avion ba nga xam ne doo am appel nga enregistré ko muy wax di wax di wax nga jàpp ko nga teg sa jëkkër wan ko na ko kii dee lii la nekkee bañ naa la ko wax ngir yàqu mbokk te man xawma lu bon bëgguma lu bon man li ma xam mooy sëy yàlla tax nga setal sa bopp si sinon bu la duulalee da ngay génn tale bu la duulalee ah. dootoo mën a rëcc parce que lesbienne day mën a fen góor jigéen day mën a sos d'accord léegi nag te ñoom buñ la sosalee doo génn ndax dañ lay sosal balaa ngay wax ñu jooy. léegi nag boo ko <laughs> jàppee preuve à l'appui yow tiyel sa preuve wax ko sa jëkkër da ngeen di génn kër gi bu ngeen nekkee ci kër gi day bi ngeen génn kër gi nga expliqué ko nag nga maanaam boo ko expliqué da ngay tëgg scénario jooyal ba immat ba wan ko ne def la métti ngir traumatiser sa jëkkër parce que mbokk dafa fort te ñoo bokk ndey. li tax rakkam tas rek mu indi ko foofu mbëggeel gu rëy fa. Mmh, léegi nag mbëggeel boobu nag bu méttee ba méttee na yow la ñuy sacrifié bul nangu benn doomaraam sacrifié la sëy jarul yenn yi ñoo bokk ndey te mbokk ndey a koy jur faire très attention te Sénégal mën nañoo nangu ne diw dafa bon waaye kuñ ne sa dooma bon nga ne dañuy fen kuñ ne sa baaya bon nga ne dañuy fen kuñ ne sa rakka bon nga ne dañuy fen mmh. waaye buñ ne jàmbur na nga ne doomaraam la buñ ne Cheikh Ahmed ne imbécile la waaye buñ ne sa sëriñ caga la nga ne tey la kon faire très attention indil preuve balaa ngay wax te profil bu mu doon benn bu mu doon ñaar fu lay tàppee fa ngay teg benn uh-huh. caméra mu tàpp la nga dajale boo paree nga defar sa filmu jour nangam dat nangam tàpp na ma ba muy set lii kenn du ko weddi su boobaa yow la ñuy ñaan sutura nga may leen sutura ccc uh-huh. mu neex at na mu benn solo yàllaa ko moom dégg nga naxal suma jarbaati naxal suma jarbaati yàlla na sa jàmm yàgg <laughs> law anzalna haazal quraana ala jabali la raytahu xaasyan mutasaddian min xasyatillah wa tilka lamsalu nadribuha ay xale bu jigéen bi njëkkali moo nopp jabar ci góor nopp jigéen nopp dëgg la kay am na lu ne am na fi lesbienne jëflanteeg ñoom dafa metti hmm, hmm. non euh, astu du tubaab du tubaab du tubaab de Euh, maa ngi seetaan ni je peux prendre rendez-vous avec toi pour consulter nangam bu mag la moo tax bëgguma ñu xam si lan laa nekk ma ne ko loo bëgg mu ne ma en privé après si tu veux maa nekk nii dañu ma xam moo tax si tu veux on se parle après Cheikh wooma waa yéen ah waa rakk jëkkër ji dafa nopp ndaw si di ko tàpp nii bugg koo tëdde <laughs> yàlla baax buleen leen fàtte tapis vert restaurant bu mag bi ci réew mi mën a togg am hygiène set neex dina mayewaat vingt plat mbaxalu yàpp bu am lépp mbaxalu saalum maa xool heure bu ma neex ma jëlaat ñu ma neex ñu livrer leen démb ñu ñuy livrer woon kontaan neen bëgg neen yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg ma wax seen cas da ngeen may message Aïssa Thiam a ngi épinglé numéro bi 78 471 57 01 su ngeen ñëwee dangeen di bind man la diw lii laa bëgg a wax préciser bu ngeen ma vocalee duma ko déglu bu bind yi guddee duma ko liir su ngeen ma waxee muy lu intéressant dinaa leen woo bu ngeen bëggee consultation privée après live bi da ngeen may fay bu ngeen bëggee nag ma wax ko ci kaw amul fay da ngeen di ñëw wax ku ne dem numéro bi mooy 78 471 57 01 ngeen ñëw bindal ma man la diw lii moo ma dal man bu amee njëriñ mu neex mu war a jur kaa dina leen jël bu lu ma leen ignorer rek mooy amaluma njëriñ su ngeen vocalee du ma déglu su bind yi guddee du ma liir wax ji leer na précisément ci li ngeen bëgg léegi jigéen joo xam ne dafa bëgg doon jabar mooy jigéen joo xam ne personnalité personnalité daf ko am am dignité gis nga su duggee ci góor dafay bëgg jàppalanteeg yow ci ngor jàppalanteeg yow ci fulla nangu laa muñal pour que ngeen sëy ngeen kontaan ngeen am ay doom yar leen ngeen ànd aljanna jigéen ji moo bëgg doon jabar jigéen ju bëgg a doon jabar rek la nit mën a sëy am jàmm waaye jigéen bu bëggee jëkkër day sëy ci biir sërëm bi muy xalaat keneen di tas bi ngir beneen góor ñaata jigéen ñoo fi nekk am jëkkër ba pare am far am jëkkër ba pare am kuñ nopp am jëkkër ba pare seen xel nekk ci seen ex loolu jigéen ju baax ju bëgg sëy du ko def waaye jigéen ju bëgg jëkkër rek a koy def kon góor ñi bu leen di jaawale ki bëgg jëkkër ak ki bëgg sëy du benn léegi léeg nga gis caga boo xam ne geer na geer yëpp kattante naa ku ne dem na fu ne dem na vacation all over the world tattu na yaram ba lëmbal na def na taati ne def na lu ne léegi pare na ci àddina moom sëy la bëgg kooku boo ko takkee mu jural la lu baax boo ko takkee mu seddal sa xol waaye da ngay jigéen joo xam ne mu nga ibaadu muuru du dem fen bëggul say jëkkër la bëgg foog na ne élément yooyu mu war a am ci la war a am pour jëkkër ñëw topp ko fonk ko def ko ni weer di ko jaamu kon mbaax nekkul ci ibaadu mbaax nekkul ci histoire jigéen ji la fi le motifam feeñoon kii la fi nangamam feeñoon kii la nangamam feeñoon loolu du mbaax bu leen juge nit ñi ci seen passé waaye ki ngeen di takk instant bi ngeen koy takk ci ngeen ko war a juge bu fekkee jëkkër la bëgg bàyyil mu sedd wala nga takk ko te bañ ak gëm ne dana yàgg bu dee jabar la sëy la bëgg takkal dana sëy moo tax ngay gis jigéen joo xam ne mu ngi sëy ci néeg boo xam ne mën amut ventilo tàngaay di ko rey te du ko yëkk ndax moom sëy la bëgg moo tax nga gis ko sëy koo xam ne siwul te dara déranger wu ko moo tax nga gis koo xam ne mu ngi nekk ci néegu sëy amul sax télé bu mu seetaan te rus naa seetaan si morom yi jéegam ji day toog rek gérer ko moo tax ngay gis jigéen ju nekk ci sëy fii ci Amérique góor du la amal benn njëriñ bu weer bi dee da ngay fay ni góor moom mu fay ni jigéen njaboot gi yaa leen di toppatoo ba pare nga di ko sëyal parce que sëy nga bëgg waaye ku bëgg jëkkër den koy wàcceel oto mu dawal oto jëkkëram dem tëdd ak góor mu laal ko lu neex mu ñëpp si waat kër gi parce que bëggul say jëkkër la bëgg dee leen jaawale jigéen ji bëgg jëkkër ak jigéen ji bëgg sëy dunu benn de dunu benn de du benn de man nag jigéen su ma lay bëgg jabar du sa bajo bu neex du sa saf loxo du sa personnalité du ni nga toll daf may leer na bëgg nga sëy ndax man fo naa ba pare su bajo doon lekk diseeru naa jigéen amul bu ma ci xamul bu njool bu gàtt bu xees bu ñuul tubaab sinwaa nit ku ñuul pare naa ci lenn rekk laa bëgg jigéen ju bëgg sëy ñu ànd sëy jaamu yàlla te yàlla tax lu ñu yàlla may ñu jël saa yoo ko bëggul mu das mettiwul moo tax du ma forcer du ma insister dama laa bëgg waaw rek ñu ànd déedéet mu jeex te su suñ mbëggeel foo ko bëgg mu yem fa yem duma puus duma ma paas góor gu baax nag bu leen ko wër amut waaye góor gu baax ci yow moo am te ñett yi boo ko gisee su góor jàppal ñett yi képp boo ko gisee ci góor jàppal waaye bul seet góor gu baax te wax leen ne société bi ne kii baax na nim penturee boppam ci société bi moo baax waaye ndax dina la jox attention bi nga soxla ndax dina la jox affection bi nga soxla ndax dina la laal laal yu neex ndax dina téye sa sutura question la boo xam ne du société bi ñoo koy déterminer doon góor gu baax mën naa nekk te doo doon jëkkër ju baax jëkkër responsabilité la ku ko deful doo jëkkër ju baax kuy jàpp ba set di julli ci jumaa ji ci mbooloo doo wax lu ñaaw doo wax lu bon toog fa nga war a toog yem fa nga war a yem ku la dangaa bon yaa bon góor gu baax nga waaye nag soo duggee ci jabar joxoo ko temps joxoo ko affection joxoo ko sutura dimbalewuloo ko taxawuloo ko doo jëkkër ju baax nekkoo jëkkër ju baax waaye góor gu baax nga mën nga doon jëkkër ju baax ànd ak sa jabar fu ne di ko bégal doo ko sonnal doo ko toroxal doo ko def dara mu am doom nga betti ko ak doomam jëkkër ju baax nga waaye doo baay ju baax ndax baay ju baax dafay taxawee jëkkër dafay taxawee doom palaasu baay kon bu leen di jaawale nit ku baax góor gu baax jëkkër ju baax ak baay ju baax ñeent yii nag yépp nag danga ko war a xool ci góor góor dëgg xool ko bu ngeen nekkee tuuti na ko dama biir nga xool ban réaction lay am ah biir kañ la loolu est na ah duñ xool nuñ ko defee kooku du papa ju baax bàyyi mu sedd góor gu baax da ngay toog rek def ko loo ko war def yaa tey xam nga lan ngay essayer patience bi mu am ak sutura bu mu am ku mënta attan say ñaawteef matut la kilifa te ku sëye ku la matul kilifa sëy ba du neex du yàgg bu yàggee métit bay yàgg góor essayel poosam na la leer ne benn thousand dollar la am benn cent mille francs nga ne ko cent mille laa bëgg bu ko mënta xañ boppam ak ndeyam jox la ko ëllëg bu ngeen sëyee bu amee na la suma njaboot la jëm moo tax yéen ñi nekk Amérique ak Europe da ngeen di sëy góor ñu liggéey ba weer bi day yónnee Afrique toog di leen xool nii duñ leen may duñ leen sarax te yéen a ngi togg yéen a ngi liggéey ñu ngi leen di kat kon ku fi am sa góor dulkat yi topp la naan la waaw Cheikh Ahmed de nii la mel moom naa la mel moom nii la mel ñoom liñ gis ci Cheikh Ahmed Cissé ci internet bi leen xam mais su caméra yi fayee xamuñ ma exemple laay jël ci suma bopp mais wax ma suma bopp su seen téléphone tàkkee rek leen ma mën a gis li ma neex man ma wan leen ko ci internet bi la ñuy gis mais li ma leen wanul mënuñ koo gis na xamuñ ma waaye ndax xam neen sutura gi ma la ëmbal xam neen mbëggeel gi ma am ci yow xam neen li nga ma jaral ñoom ñi naan moytul Cheikh Ahmed ndax man li ma mën ci yow mën neen ko ci yow fi ma la teg yow ndax ñoom teg neen la fa kon dama bëgg ngeen am xel te ubbi seen xel yi te xelu jigéen joo ci bëgg ñu ne la cagala cagala woon mais ca ñam doon cagala caga mais yow du sa caga te mën ngaa am sa gel mu bëgg la lool nit ñi di la ko critiquer te su te suñ nangu woon seen groupe maanaam mën nga am sa gel nit ñi di la ko critiquer te ñoom ñi koy critiquer seen baay su gel bi nangu woon guru seen baay takk ko mën nga am gel ñu toog na la kiy caga laa kii la doon génnal te caga boobu ñu lay tere bu doxanoon sa seen baay ñoom ñu koy fen seen baay indi guru ñu sëyal ko lu neex kon ku fi critiquer ki nga bëgg moom imbécile la ndax boroom xel dëgg warta dugg ci ñaar ñu bëggante ne da ci am ay idée kenn laaju la kenn xoromalu la sa yoon nekku ci waaye yow moom mi koy déglu muy wax ci ki nga bëgg lu ñaaw yow yow doomaraam nga yow yow moom da jaroo dara yaaroo boroom kër gu ñuy dab ci mbedd mi di ñandu ci mbubbam mi ci ñàkk fayda ndax bi yàlla di dogal mbëggeel tàggu ko xamu ci dara yow bi ngay bëgg xamu ko lu ci yoonam ku ko laaj ay diye nit soo ko bëggee mu bëgg nit danga koy bëggale ki mu bëgg jàppale ko ci mais yenn kàddu yi doo ko ca wax kon yéen jigéen ñi su ngeen amee góor gu ngeen bëgg su ngeen amee góor gu ngeen bëgg jàpp leen mu dëgër fii benn góor baaxut waaye góor gu baax ci yow am góor goo xam ne bëggut nga jooy fu sa rongañ tooyee mu ngi taxaw jox la musuwaar boo ko fompee loo bëgg moom mu bañ ko ci lu la neex lay xëy di ci dox ku la ko bàyyiloo sa noonu su fekkee déggu leen ma ma jaaraat ci de góor goo xam ne fu sa rongañ mu ngi taxaw téye musuwaar pour fompal la ko foo amee lu la naqari taxaw na ku la tooñ mu paree doon sa jàmbaaru xare mën naa jaay bakkanam ngir yow su àdduna yëpp ne déedéet mu ne waaw lu mu am jox la ko xañ ko boppam yow la def mbokk yow la def xarit kooku góor jigéen ak xarit ak mbokk bu la ko bàyyiloo sooy jàpp say noon jàppal sooy wër say noon jàppal kooku du xarit du mbokk nit ñi nag dañoo bëgg relevant ak attention ba soo bëggee lañuy ñu door a am parole ah jànq ki nga bëgg nii mbaa xool nga ko am na benn jigéen série infidel la nekk mu ne woo yaay suma xarit la saa yu tesee ñu kaf am jàmm ma bëggante keneen ku nekk ci série bi bëggante lu neex kooku na ko Cheikh Ahmed laa bëgg moom laay waaji séer ndaw si di ko duul yi xeetu duul ne ko man am naa jabar nii laa mel naa laa mel te moom jigéen jooju musuma ko juger te xam naa ne suñ ma laajoon bëgguma mel ni moom mais jigéen la ma bàyyi ko ci biir bi ma ko kooku waxee ma ne ko sa xarit la mu ne waa ma ne ko gëmal lim la wax te jàpp ci man du ma neexal jigéen du ma insiste ndax énergie bi ma am du pour neexal jigéen mais dama koy dépenser ci ki nga xam ne xool na ma ak sumay sikk mu bëgg ma kooko ko mérito mais du ma neexal kenn di la convaincre du réew du yëg suma bopp ndax taaru ma awma xaalis mais xam maay kan la the little energy I have is not to convince anybody to be with me but pour dund ko ak ki nga xam ne moom tànn na ma ne yow laa bëgg kooku suma énergie pour kooku la man géej naa laa bëgg keroog bi nga ma baññee maanaam ci the very moment you say no I say no. The very moment you turn your back, I turn my back. adduna continue méttiwul jamono di dox di dox di dox di dox ba kooku di seetaan suma live ba ne ma seex bi baal ma xaw ma woon ne amoo jabar ma ne ko déedéet <laughs> li jëntu woo ko sa xarit moo leen ne am naa nga gëm ko fexeel moom ba mu wutal la góor goo xam ne du la fen dafay dëggu lu mu am jox la ko lu wax la moom mi la xañ Cheikh Ahmed na la may loolu kon dama bëgg rek yéen jigéen ñi su ngeen nekkee ci relation bu ñu leen di xeebee di leen xeex bu leen fa nekk di justifié wu di woote jànq danga ma xamal ne man dama nekk ak Ibou justifié pour lan pour kan yow yaa ngi nekk jigéen nga bëgg góor mënut a xam ne danga koo bëgg kooku amul xel mënut a apprécier sa mbëggeel ci moom kooku amul xel léegi nga bàyyi ko fa di pour lan da ngay xeeblu sa bopp yëpp sa bopp danga daan tekk mat nga ne ko ah boo danga ko gëm mu waa nga ne ko dëgg la kay mu bàyyi nga ba ko billaahi wallaahi tallaahi àdduna dina dem ba yàlla wan ko ne yaa am dëgg waaye àdduna dina dem ba yàlla wan ko ne ko kenn du yow te daf koy réccu jamono bi muy ñëw di la jéggalu nag li gën a neex mooy yàlla dalay fexe ba moom mu génn sa xol ba nga avancé ci leneen mu lay topp di la neexal muy neex sa xol te du la déranger looloo neex Ndeye Amy Tine Dakar la nekkoon ku baax la dama noon seeti suma yenn jarbaat rek gis ko ma bëgg ko bi ma demee pour ñaani ko islaam daf ne sooy ñaani jabar waxal sa passé ma ne ko man nii laa mel fase naa kii fase naa kii fase naa kii jigéen ju baax ju ma am am nga jëkkër ju baax te keroog boo ma bañee laa la bañ goro yu xoo toog xool ma nii ba ci kaw ba ci suuf ñu ne ñu ne ko ndey am ñeme nga kii mën na leen waa ku dëggu la ñu ne ma may ñu dinañ la woowaat man leen baax na ndey amina ma waroon a waxee nii ma ne ko déedéet islaam lii la wax booy doxaan soo fasee neel fase na nen la laaj lu tax nga wax ko léegi bu fekkee ne yow ceebu jën moo tax nga fase sa jabar sa jabar te ñoom ceebu jën leen mën a togg sëy bu du def bul nëbbu sa bopp gis nga njuumte ak naxar ak métit bu la dal sa àddina boo ko waxee ku la bëgg du la mere du la juge mais da lay yërëm koo wax sa ñaawteef mu mere la rek bëggut la woon saa yoo juumee tey su ma la moti feeñ ñu ne man kii nu ma ko bëgg yoon bàyyi naa ko mbëggeel gaa des nit bul nëbbu sa passé bul nëbbu yow yaay kan ki la bëgg naturellement bu ñëwee dalay jàpp billaahi wal kitaab bi waaye nit mën na la bëgg nga réeral ko sa bopp nga dem ba mu xam yaay kan mu am déception ba jéppi la yaa ko yàq da sëyoon tas na ko sëy naa tas den laa biiral na ko am naa doomi biiral bu lay bëgg bëggaale sa doom jeeg biiral bi yépp loolooy mbëggeel su la dul bëgg mu bàyyi la sa bopp yàlla bëgg na la bëgg nga sa bopp uyule ma mu ne ma xam nga ni ngay def ni du lii baaxul ñii dañuy ragal duñ ma la may ma ne ko waaw naka nag ma ñëw ñaan si ñu foog ne man dama perfect fekk perfectuma ñu dem nit ñi di leen wax ñuy naqaral suma ma sëy nii laa mel ku may bëgg bëggee ma nii ku may bañ bañee ma nii su ma kenn bëggut yàlla bëgg na ma ndax moo ne rahmati sabaxat ghadabi fa biya aarifoo nii ci mbëggeel la ma yàlla bind teg ma ci suuf si ne yër man yërmande yàlla moo tax may nokk yërmande yàlla ci laa sañsee ne yàlla ci laa amee xam-xam loolu su ma doyut lan moo may doy dinaa ñëw nëbb ne man fase naa jabar fase na faseeti naa faseeti na te damay continuer di fase fekk suma xol seddut su ma yoon dajee ne sëy dafa dagan fase dagan waaye nag dina doon gàcc ci man ma téye jigéen ñu may ma ko ma koy toroxal ba mbokkam mi nangu ko loolu moom gàcce la moom wala di toroxal jigéen bañ ko ne masta man ku ma takk su ma la fekkoon ci benn ñaar nga jëm loo am jëlal yaag say mbokk soxlawuma ko lu ma am la ñuy bokk bu guddi gi jotee da ngay bëgg suba teel gi nga bëgg dina la wax lu neex naa la sago naa la tiitaroo fa laa mën a yem bis boo ma ñaanee baat ma may la baat bis boo ma bëggul ma bala dama fekk Seydina Ousseynou di sëti yonantu fase cent trois fois sëriñ yi ñuy waatee ci senegal fase ba bëgg a dee yonantu bi fase fase na plus de dix jabar te moo ñu gën wuy la maal ci fase gàcce ci góor mooy ñu yëkkati jigéen mu jongama ñu may la ko nga di ko toroxal di ko sonnal ba mu jeex amul yaram loolu gàcc la jigéen doon jàng nga am yaakaar ñu am yaakaar ci yow may la doom mu doon jàng ba war a am bag nga yàq jàngam ba amul diplôme ëllëg soo ko fasee mu yàqu looloy gàcc these are things I always pay attention to waaye comme ne nii nii nii su ma daje ne mun naa la takk midi sa fase la midi dix dafa des ci yow rek soo buggee toog toog soo bëggee dem demal la c'est pas méchant méttiwul taman dama lay fase ba pare ñu nekk xarit <laughs> ay fase dafa yàq dara sëriñ bi dooma dëddale ak yow bàyyi la nopp naa la sama reer bi xam na <laughs> c'est que ñii dangay wax farata ñoom ñuy yàq quoi sëriñ bi dooma dëddale ak yow ma bàyyi la topp naa la ba sama reer bi xam ay yow baal ma àq lan nga doon togg reer ak dépense bi ñaata la baal ma sonn consultation laa bëgga maa ngi sérieux nag eh madame Bojang ba ma dama am problème xel kom maa ngi ci live dama am ziar naa la caatu boroom xel kom maa ngi ci live oh ok en privé da ngay fay de waxuma ba sonn di jël kenn en privé en privé ku bëgg danga may fay ku ma fay doo wax en privé ewaay eh ewaay eh waxal leen ma Jojo maa ngi ci live bi bi dafa réer dimbali ma mu feeñ man nu may feeñalee carte séjour man ay bajoo koy lay régler de vingt-huit ans maa ngi sàkku ñaan pour ma pour ma soxna pour am soxna vraiment aide-moi cheikh bi je compte sur toi sérieusement mu ne jabar la bëgg. xam nga laa rabbil alamin ba ma amee sa numéro bi yàlla daal ma ko yombalal damaa dugg rek sa page am ko jërëjëf yàlla. ziar naa la cheikh man de mballu mooy suma problème soo ma mënee dimbale ma bàyyi ko billaay dama koo bëgg a bàyyi. Ah. yàlla baax na allo na def. allo. waaw mbaa ci jàmm. Oh, yow bi nga amee ñaata at nga commencé mballu. ba on peut dire quinze ans wala six ans yooyu noonu. ok léegi ñaata at nga am. maintenant vingt ans. kon ñeenti at yaa ngi mballu. ok lan moo la trigger maanaam lan moo yee sa xel mi ba nga commencé mballu pour quoi nga commencé mballu waaw mais mun naa mun naa wax ak yow en privé parce que xam nga mooy loolu ko non privé moom boo ma fayee wax ak man boo ma yónnee dix mille moom nga am ma trente minutes vingt cinq mille une heure de temps sinon nga wax ko fii ma traité ko directement te doo fay dara bu la ci gënal nga def man amu ci benn problème. Ah, ok baax na incha allah. kon naa baax na jërëjëf. ok jaajëf. jaajëf. mballu ma ne mu ne daw naag natt bi waaye mbal yéen caga ji laajte mballu yépp xam ngeen ko live bi yëpp laajte wu ci benn mot le mot mballu rek ngeen ci retenir di ko laaj fii ngeen may fekk yéen a gën a xam luy mballu dama am problème bëgg dugg ci live bi pour masturbation jël ma maa ngi ci live bi fa lay waxee ok alo salaamaaleykum. waaleykum salaam nanga def. maa ngi fi tontu am na si maa ngi ci jàmm alhamdulilah yow nag. Hmm, caatu yow yaay caatu boroom xel ko maanaam caatu Serigne Saliou. Hmm. yàlla na fanam bi gudd lool waaye. ndax moom bokk na ci wàllu yàlla yi nga xam ne seen dund mooy seen dee seen dee mooy seen dund. waaye bu ma ñaanee fanam gudd ci baatin ci zaahir maa ngi ñaan yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem ñun. Ah. ci kem yërmandeem ci barke mm. baayam bu sell ba ak baayam yu sell yi. ban problème nga am yow caatu xel ko. bon man bi ma nekkee woon euh, xale. may ma foofu ma laaj la ñaata at nga am right now. est ba pare nga ne bi nga nekkee woon xale. eh waay mag nga. waaw parce que bébé yow xale nga. <laughs> parce que boobu genre maa ngi doon am ay sept ans huit ans. Mhm, lan moo xewoon. dafa am koo xam dafa am koo xamante ne da daan ñëw suñu kër. Mhm. suñu mbokk la daal mais du mbokk yu jege. Mhm. mais su daan ñëw ñun ñëpp daf ñu daan làmbatu affaire yoo xam nga ne xale ragal wax parce que daf ñu daan mën menacé. léegi lool nag jàppoon ñu. moom daal da lay si néeg bi semaine sa si dib di la làmbatu wala mu tëdd sa kaw di bombu affaire am ba daanu mais du daanu sa biir daal si kaw rek lay daanu noonu. Mhm. comprendre na. léegi man nag bi ma mën a àggee loolu jàpp léegi keneen ki mu ko defoon moom sama affaire bi xam nga laa suite dafa ëmb. sa allo allo allo allo sa connexion mu ngi daw bu baax a baax. parce sa connexion mi ngi daw bu baax a baax. ñun mënuñu laa dégg sa connexion mi ngi daw. maa ngi lay dégg. Ah. ak ñu. nga ne bi ngeen nekkee xale. moom daf ñu daan làmbatu man ak sama beneen sœur. ok moom su leen daan làmbatu daf daan simi seen silib bi daf leen daan def taat neen di leen làmbatu. waaw daf ñuy def taat neen après day jël sexam bi duñu ko bomb ba daanu moom dañuy gis nii liquide bu weex bi. ok maanaam daf leen daan yow bi nga magee ni xam nga xam nga ne lese la leen daan def da leen daan lese. si waaw après comprendre naa. parce que sama mag bu jigéen bi mu ëmbee noonu sama doomu baay la. kan di waxtaan. moom keneen moo ko ëmbal. oh moom dañ koo pénétrer mu ëmb. non non moom waa ji ëmbalu comme ki ñu daan def loolu noonu ëmbalu ko de ki ñu daan def loolu instant yi kenn gisatu ko ñun xamatuñu fan la nekk mais après sama mag bu jigéen bi ñun ñoo màggandoo daal si kër gi ñooy fowandoo ñooy ànd ñooy defandoo lépp te bu ñu ko daan def tamit man ak moom ñoo daan nekk si même nii mu ñu koy defandoo. léegi moom après continuer nañ muy dem si ay góor te am ay copains di ñoom par la suite si si jëlee ëmb. après si hmm. lañ doon toog waxtaan ma ne ko yow lan moo la dugal si affaire yooyu noonu ba nga jëlee si ëmb après mu may fàttali loolu daal ma ne ko mais man loolu jàpp na ma mais man damay tëju sama biir nekk jël karité. di ko utiliser di jël sama baaraam di ko def ba ma am plaisir après ma bàyyi mais pas di sekk ak ay góor affaire yooyu noonu léegi loolu nag ba tey jii man dama koy def te dama ko bëgg a bàyyi mais dama am problème boobu. ok mais yow boobu ba léegi góor musut laa tëddee wala yenn saay nga mos. non non non damay am copain mais commencé fonante bañ bëgg a yegg fii rek man damay résister damay soo sama yére jug dem. ok mais yow munoo ko muñ yow problème yi mballu nga am quoi. waaw man moom ba tey dama am damay toog ma xel nekk si may utiliser qualité di masturbé wu ba daanu wala may seetaan ay vidéo parce que tamit mënuma jox sama bopp góor dama am problème boobu. ok mais pourquoi sooy mballu karité bi pourquoi karité bi. ah je pas man <laughs> pour mu li tax. xanaa dooy tooy. si damay tooy kay. mais je comprends pas pourquoi karité ak loolu la jox idée karité bi lan moo ko dugal sa xel. ah man xaw ma xaw ma. da toog rek xalaat karité bi. waaw jusque au début dama daan jël sama loxo di def mais du tax du def dara genre laa xaw a métti daal après par la suite ci laa jël karité yi di ko utiliser. ok léegi waa jooju daan leen ko def moo leen traumatiser këlee jaar fa di dem ci ay góor ba ëmb yow munoo ko munoo jaar ci ay góor waaye yaa ngi doon mhm. bégal sa bopp parce que miinal neen la ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ok pendant ñaata temps la leen ko daan def ay at yu bëri wala. presque man na ay six mois. bi mu leen bàyyee di leen ko def dafa am ñeneen ñu leen ko daan def wala kenn defaatul leen ko. non man moom personnellement moom keneen defaatuma loolu personnellement. mais après bi mu la bàyyee balaa ngay commencé karité bi ci diggante ba dang daan toog di namm lim la daan def. si danaa nekk sama xel dama doon am envie c'est ok parce que musut la pénétrer quoi du métti. non non man parfois sax damay toog di demander wu naan est-ce que su ma amee jëkkër sax su ma pénétrer dinaa si yëg plaisir parce que tellement que man sama coppite bi laa yëgee plaisir. oh femme fontaine nga. <laughs> mais j'espère que loolu du ma andil benn inconvénient parce que parfois mi ngi ay vidéo yoo xamante ne nii dañ naan yooyu boo koy def genre mën na dem ba nekk sa faru rab. wala nga nekk koo xamante ne mën nga am jëkkër du la mën a satisfaire fenn. ok maa ngi lay bëgg a reetaan loo pour nga reetaan mais c'est plus sérieux que reetaan. c'est sérieux moom. <laughs> mais su jigéen ñëwee ci man. Mhm. duma bëgg blessé ko duma ma juger kenn. Mhm. moo tax ma lay oyofalal waxtaan bi pour que nga dal xam nga bi nga ñëwee ba yaa ngi wax bu gaaw mais léegi dal nga yaa ngi nekk à parce que da nga nerveux soon. Mhm. you were mais bul foog ne mukk dama oyofal sa mbir du lu oyof. mais dama bëgg nga dal. moo tax ma ciy dugal tuuti reetaan pour nga léger nga nekk à l'aise comprendre nga. maa ngi doon nekk à l'aise mais moom bi mu leen ko doon def jamono xale. Mm-hmm. yéen ñaar ngeen ko daan defandoo ça veut ko kon da ngeen daan tëdd su kii jógee kenn ki day puus moromam mu tëdd ñu def ko ko parce que neexoon na leen. non bu ñu suuf lañ naan non début bi moom neexuñu woon. Mhm. mais ak menaces yi ñu doon def mais au fur et à mesure ñuy dem wax dëgg yàlla nakariwuñu woon. d'accord léegi euh, commencement bi bi mu leen doon menacé ngeen nekk xale ngeen door a gis kooy mu génn nii. Mhm. affaire bi day rëy xam nga boo nekkee xale. Mhm. nan nga doon nan lan ngeen doon yëg jamono boobu balaa ngeen koy mii naka kii mu premier jour mu génnee kooy bi ngeen gis ne lii kooy la. lan ngeen ko dundee. bon man moom personnellement man moom dama doon tiit dama doon tiit bu baax te tamit wax nañ ko suñu beneen doomu baay boo xamante ne nii góor la si kër gi la nekkoon wax nañ ko ko expliqué ko lépp mais moom tamit dafa jaaraalee si loolu di ko def mais moom suma beneen mag bi kooku la ëppoon lu doon pénétré man moom daaw ma nangu pénétration wax dëgg yàlla. après mm. kooku na xam naa tamit liñ ko daan pénétré peut-être loolu moo ko yóbbee si mu dem bay nekk ak ay góor ba jëlee si ëmb. o oh, yéen bi mu leen bi bi ngeen tiitee en tant que xale ngeen gis kooy ñu def leen lépp da ngeen ko booleeg mm-hmm. seen doomu mag sama doomu baay koo xamante ne suñu doomu baay la si boppam suñu papa yi ñoo bokk pour mu dimbale leen ko wax waaw pour ñu dimbale parce que daf ko waajo dañoo génnee paaka ñu expliquer ko lépp daal tous les détails mais moom tamit occasion la ko def léegi moom nan la leen daf leen wax ne kaay leen ma def leen wala ma boole leen wala daf leen forcé wala moom moom nu mu duggee ci game bi ba di leen def loolu. non moom biñ ko ko expliqué da waa garaaw après dinaa ko lijjanti noonu ñun tamit ñu jàpp ne dina ko lijjanti parce que ñun tamit ñun ñëpp ñoo doon bokk nekk amuñu woon benn problème góor ñi dañ doon tëdd si suuf jigéen ñi tëdd si kaw. léegi guddi gi nag moom suñ daan tëdd day ñëw di ñu làmbati affaire yooyu première fois bi ko njëkkee def ma ne ko waa diw yow looy def nii. mu ne nopp leen parce que yii ñu leen def nii dafa baax suñ leen ko deful diw da leen ray wala mën na leen sànni foo xamante ne kenn dootu leen gis affaire yooyu noonu après ñun tamit ñu continuer nekk si. kooku seen moroom la woon wala kooku tam moo leen magoon. moom moo ñu magoon kooku presque magee nañu ay cinq ans. cinq ans mais morom ngeen rek waaw a daan bokk nekk parce que ça veut dire mais moom moo ñu magoon si nekk moom moo ñu magoon bu baax. léegi bi ngeen demee entre temps ba commencé di ko mhm. miin parce que yàgg ngeen ci bu bu sa doomi baay bi moo leen daan gën a neex wala waa waajale ah ñaar yëpp neex na te nakariwul ok waaye sa doomi baay bi da doon pénétrer sa beneen mag bu jigéen bi waaw moom day bëgg duñu pénétrer mais man moom dama doon bañ moom léegi sa mag bu jigéen boobu moom nangu woon na pénétration moom xam na ne lii pénétré la nangu na ko. c'est que kooku nag problème bi mooy mooy xelam neexul moom moom nor normalement kiiwul maam du nit ku normal daal. ndeysaan dafay ah, daanu rab wala dafa ñorati wala dafa wérati. non comme genre jigéen bu xaye di daal. oh ok dafa ñoradi rek mais dara jotu ko. waaw maanaam maanaam ñu xaw a oyof bopp yooyu waaw. waaw. donc moom nangoon na pénétration. waaw moom moom da ko doon nangu moom. yow boo boo ngeen daan da ngay xam ne kii ñu ngi koy pénétrer da ngay gis muy dugg a a génn. bien sûr dama koy gis nii. soo ko daan gis sa xel du ci dem. non man sama xel du si daan dem parce que man si man lañ daan njëkkee après bu kii dugal dama naan ko demal si kii nga dugal ko foofu. oh yow yaa doon yaa doon mbong bi daal maanaam yow di nga dem bànneexu mais kenn du la tëddee suñ la bëggee tëddee nga sacrifier sa doomu baay. <laughs> sacrifier yow boo ko de. d' accord mais suñ la bëggee pénétrer danga naan dem leen dugal fële ça veut dire que kenn du dugal ci yow. ah waaw parce que jusque jusque man dama doon xalaat comme moom normalu du nit koo xamante ne genre ku xayade la daal te man nit laa genre. xaw oh, ma laa la ko mën a expliquer daal. comme buñ defandoo. leer na ni nga ko bëggee expliquer leer na maanaam kii dafa ñoradi yow da nga ñor moom bañu dara yow am na loo bañ. su ngeen demee ñu lese leen ba yow nga kontaan ñu bëgg laal laal yow it nga sacrifier dof bi ne dem leen katt ko yow nga téye sa bopp. loolu la parce que damaa xam ne nii tey jii su su su man par exemple su fekkoon man maa ëmb. man problème bi ma si coow li ma si nar a am du bokk ak moom ëmbam daal. Mhm. ah moom bi mu ëmbee nit ñi dañ ne ah moom wérul xel mi nekkul si moom tayu ko est-ce que ko lu bëri daal dañ doon posé ay question par rapport ak man yàlla bu ma daal su man la daal moom dañ naan ma yàq tey que duñ am compréhension si man daal. ok léegi bi ngeen demee ba miin ko yéen am na jamono ngeen daan oo yi pour ñu def leen ko wala loolu musta am. non ñun mosuñu leen woon woo parce que ñun mosuñoo nangu pour ñu yor téléphone. non non non maanaam comme nga teg ci kër gi mu wéet nga ne ko kaay leen kaay ñu def ko comme mosu leen a woote. non non ñoom ñaar ñëpp dëkkuñu woon si kër gi kenn ki suñu doomu baay bi moom moo daan ñëw si kër gi lu ëpp di fi def ay weekend di fanaan mais keneen ki moom temps en temps rek la doon ñëw si kër gi. ok suma question mooy. Mm-hmm. même temps en temps yooyu ñu daan ñëw ndax ñoom buñ ñëwaan mës na am benn bés yéen ngeen provoqué leen pour ñu ñëw def leen loolu parce que miin ngeen ko neex na. non non lu si ëpp ñoom ñëw parce que ñun heure buñ mësaan añ ba pare dañ naan ñu dem leen tëddi dañ leen dem tëddi naraw léegi ñun buñ tëddee ñal ñoom nag xamoon nañ suñu heure heure yooyu dañuy ñëw. ok léegi après sa doomi baay boobu bi mu jëlee bi mu profité ci occasion bi waroon leen a jàppale en tant que seen càmmeñ defut ko. seen mbokk bu sori boobu ñëw daan leen ko def après bi ngeen gisatul ñooñu kan moo leen ko daan defaat. non man moom kenn defaatuma ko te sama doomu baay bi moom ba tey maa ngi gis jusque ki ko njëkk kooku lañ gisatul mais sama doomu baay bi moom ba gisante ak moom nii mais. sa doomi baay bi boo ko boo ko gisee yow sa xel day dem ci lam la daan def. bien sûr. ok musoo ko ci approche waxtaan ceeg moom. non non non musuñu si wax. moom léegi am na jëkkër am na jabar. non non amul jabar de. pourquoi pas nga sëy ak moom. sama doomu baay ma sëy ak moom loolu garaaw dagan na seen papa yi ñoo bokk loolu nga wax. waaw suñu papa yi ñoo bokk. papa islam bi muy compter sëy ñaar ñu bokk ndey ak baay seen doom yi la njëkk a ak baay comme yéen def ngeen loolu te miin nga loolu te moom daf la daan lese te yow lese moo la mën a daane te mbokk ngeen. danga koy approche nga waxtaan ak moom na ko lan ma daan def lañ ma doon def ba ma boole la nga di ko def moo ma jàpp ngeen sëy suturaal seen bopp moom dina la mën a lese di ngeen am doom. moom instant yi nekk fi dañ ko jàpp prison parce que dañ ko jiiñoon viol. non ko jiiñ jiiñuñ ko ko dëgg la. <laughs> waaw man de automatiquement bi ma ko yëgee moom dama ne dëgg la parce que comme am na fu jaar dama ko gëm. ok. Mhm. léegi danga ragal ne boo amee jëkkër bu la lesewul doo kontaan. waaw wala damay xalaat aussi am ko tey jii nga sekk ak sa jëkkër ba pare satisfaire woo après ngay defaat yenn yi après mu lay laaj yow looy def nii wala dara. soo waxee loolu mooy danga ragal am jëkkër ngeen laalante ba pare ngay dem ballu mu lay laaj looy def. waaw ok. Ehm, par ñaata temps ngay mballu ci semaine bi. trois fois. chaque semaine di nga mballu trois fois. Mm-hmm. yu constant doo jëlal. Mm, non damay jëlal. ok lan moo lay xiirtal ci mballu. baa xaw ma damay toog rek sama xel nekk si. booy déglu waxtaani caga da ngay rek après nga dugg ci biir dem mballu. waaw. ok euh, yenn saa itam nga toog doo déglu benn waxtaan sa xel dem ci naturellement nga dem mbal. non non pas ay waxtaan moom parce que man kay sama xel nekk si rek ma play ay vidéo seetaan. ok yow sooy mballu nga seetaan vidéo. non parfois may seetaan ok léegi léegi léegi boo amee copain di nga nekk ak moom ci téléphone bi ngay mballu muy wax ngay mballu loolu dina lay daal. waaw parce que lu si ëpp pour bañ ay sëkk góor moo tax lu si ëpp ñu nekk extérieur rek laay génnoon je pense deux fois laa mos am ko yu nekk Sénégal la reste yëpp newuñu fépp. ok mais ñoom dañuy xam ci téléphone bi ne yaa ngi wala danga koy sàcc rek mballul sa bopp. non non su ma commencé santé sama bopp rek damay coupé téléphone bi. fay connexion bi nekk si lu may nekk ba kii soit ma woowaat la soit ma jaaree fa tëdd. ok mais yaa ngi moytu mballu appel vidéo comme taal sa vidéo mu taal nga mballu yaa ngi koy moytu. non non du ma du ma man du ma appel vidéo pour kii pour am plaisir yooyu noonu. ok nga sóoraale Adama. ok pendant temps bi nga xam ne ñu ngi lay ñu ngi la daan def loolu ana sa yaay ak sa papa. ba man xaw ma sama yaay parce que sama yaay moo ngi décédé en deux mille sama yaay mi ngi décédé en deux mille deux sama papa xamoo sa yaay xamoo sa papa. sama papa naa ko parce que dund ok kër gi ñu la ko doon defee lan nga fa amoon ba dëkk fa sa kër maam la sa kër wala sa kër yaay. sama kër bu góor bi jur sa yaay jur sa baay. ki fa leen la daan defee loolu. waaw këram lañ nekkoon sëtam yëpp. ok est-ce que yow tey soo wéetee di nga fier ci sa bopp. non. ok mbaa naxar bi naxar bi du lay du lay jàpp ba nga ragal ne yow bokkoo ci jigéen ñu baax ñi. waaw parfois damay toog ma ne man baaxuma parce su ma toogee xalaat fi ma jaar damay damay dund sëriñ bi bu baax nag. mais après ma dëkkee yéen dund sëriñ bi ban sëriñ ngay dund. Cheikh Tidiane. Cheikhu Tidiane. Ah? yow taaliba Cheikh nga. taaliba Cheikh laa. non. Mm-hmm. bi ngay commencé wax. bi ngay commencé wax. Mm-hmm. danga nga ne woon ne yow yaay caatu boroom xel kom ba mag yow ñu wax ci sëriñ Saliou. waaw man dama bëgg Serigne Saliou moo ci nekk nga bindaat yaakaar sëriñ Saliou ci fin bi nga ne waa taalibe Serigne Saliou. waaw tijaan la suñu waa kër ñëpp ay tijaan la. ok pas seen waa yow laay waxal jël nga wird. non non jëluma werd. ok mais dafa am ay sart. ak ni jël werd. si ci nga war a jël wird wird bi pour mballukat yi la boo ko defee rek mu génnee la ci ah, mballu nga doon baax waaw wird tijaan du pour ku baax. Hmm. parce que ndox mu muy setal ku tilim la ku tilim rek moo war a jël wirde tijaan mayu tijaan nag pour nit ñu baax ñi la waaye wirde bi du pour ñu baax pour mën ak yow mi bon nga xam ne dañuy fenn di sos di créer ay histoire ñun ñoo moom tarixa tijaan waaye mayi tijaan yi nag moom dangay ngay dem ba sell ñu door laa may wirde bi ak may yi du benn kon sa mballu gi nga nekkee boo doon jël wirde tàkkusaan nga toog wirde six mois doo ko def te mball yi bàyyiwoo ko Mm. dinaa ko def. Mm-hmm. maa ngi lay masaw bu baax te di la xamal ne yàlla dina la defal jàmm incha allah. amiin taalibe Cheikhu bu bëgg Serigne Saliou jàmm rek la yam doomi Faat Jaxate mm. kontaan na. léegi amoo garab boo xamante nit mën na ko utiliser pour bàyyi mbalu. garab gi de mooy comme Tidiane nga nga jëli wér de Tidiane boo ko defee rek bàyyi mbalu. sooy wér la suba ngoon di toog wasifa lii ba. Mhm. d'accord dinaa ko def merci beaucoup. jërëjëf kontaan naa. jërëjëf. Eh, li xam. ma ne ko eh, li xam. Euh, am na ku ma message mu ne démb bi may joxe numéro bi may jël numéro yi pour di ko jox waa tapis vert non yéen ñi commentaire gis naa seen commentaire mais man mi toog fii di jël appel yi di wax ak nit ñi ku ne dar yëkkati kàddu xam naa li ngay wax xam naa li la tax a jóg xam naa fi nga ko teg mais man suma live indépendance moo fi nekk ku ñëw waxal loo wax nit ñi am neen xel am neen yëg-yëg buñ ko yëgul du dëgg seen xel dina leen àtt waaye man du ma juge kenn du ma ne kenn wax na dëgg du ma ne kenn waxu dëgg waaye yéen nante ngeen sëriñu nante bi mu ngi fi mais ku fi wàcc ci live bi rek xam naa lu la tax a yëg xam naa li ngay wax xam naa sa motivation xam naa lépp mais man dama lay bàyyi ak àdduna bi rek ñoom dineen juge nit ñi am neen xel mais man du ma juge kenn euh, kii daf ma message mu ne démb bi may jël numéro yi bi may jël numéro yi am na ay góor yu doon jël numéro jigéen ñi di leen woo ku ko ci bàyyiwul nag ba góor wan ma jigéen wan ma preuve ne yaa ngi leen di harcelé di nga am sérieux problème dinaa ko wax mun naxante yow ba jël sa vocal ma ñëw pilee ko suma live sutura soosu nag dara jaru ko tapis vert den doon maye reer nante tey leen ko doon jox amu leen soxla seen numéro nit day xam boppam rawatina góor toog ci live yi jël numéro nit ñi lu ne nga ne ci ku def suma live ba jigéen yónnee ma dinaa ko teg dili maak moom ñu teg la dil boo xam ne bi su ma ko tegee ci àddina ca ngay amee baat bés ba faw yéen ñi waral yéeg suma live na ngeen xam ne live bi pour wax jàmbatu jigéen yi la ak seen jafe-jafe ku fi inventé sa histoire wala nit ngemb la dem nga am sa objectif pour ñëw wax fi dangay xeeblu sa bopp rusloo sa bopp te dara jaru ndax man mi ngeen di waxal lépp laa xam te dara safuma kon suturaal leen seen bopp ku am lu la métti naqar nga ñëw ñu partagé ko mu utal la solution mais xam ngeen nan ngeen di xamee ne nit day fen su ma live boo ñëwee wax soo paree duma ci sax commentaire dama lay jéggi bàyyi la mel ni yow existé woo duma ci sax wax mais ku ngeen gis ma jël ko au sérieux rek kooku dëgg lay wax benn waliyu yàlla naar yi den daan ñëw di ko laaj addiye shérif taalibe bi bi gën am xel daf ne su ne dalal leen ma suma gan gi ñu xam ne kooku naar la bu ne dalal leen shérif bi ñu xam ne kooku shérif la waaye yéen nan tey tamit ku yéeg suma live wàcc rek ngeen gis waxuma ci rek xam leen na gëwma ko mais ku ma topp kaam di wax ak moom jël attention su moom rek gëm naa ko ndax man nit kuy wax ak man boo ne der ma xam ne da ngay fen wala ci biir wax ji wala balaa ngay daan néew ma nag kenn dafa fen parce que awma droit juge kenn wax dafay leer mais yéen ñi may topp seetlu leen ma ci ni may doxalee ngeen di xam kan moo wax dëgg ko waxu dëgg maa ngi gërëm ki fi génnee léegi di ko masaw di ko ñaanal yàlla jàmm yàlla defal ko jàmm nit ku baax la kii nee na asalaamaaleykum cheikh bi man sama xol bi day tàng rek ba ma si mënee jàppale salaam aleykum. maaleykum salaam. waaw jërëjëf kontaan naa trop. maa ngi gën a kontaan. waaw man laa nag dëkk Baara. Mhm. waaw ma dee Sénégal live dama de dama dama si di jàng lu bari. Mhm. waaw comme dama la bëggoon a laaj comme garab bii nii garab boo dee jaay comme maa ngi Italie fii léegi comme naka laay def jot su ma si buggee. dangay def plus two two one. sorry sorry bro aspect ah, xaaral. dinañ la ko bindal bi dinañ la ko bindal. Aïssa Thiam bindal ko numéro Andala Boury bu Sénégal sarab lii. broda maa ngi waxtaan lu am important nga topp ma jël ma jël ma rek ndeke yow danga ma bëgg ay garab yi Andala Boury kaa itam duñ benn Aïssa Thiam bindalal ma ko numéro àndalaa buri bi 77 285 38 38 mu jël ko waa pin ko épingle ko bro jëlal Mr Faye jëlal jëlal lifin bi mu ngi noonu nomba bi Aïssa Thiam épingle ko mu gis ko ci problème yi nag duñ benn salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ni ngeen def. maa ngi sant yàlla. waaw gi. ñu fi. alhamdulilah man de maa amoon benn jafe-jafe bu ma mi ngi waaj a def trois mois ba ñu waxee yow maa ngi koy dund euh, yàlla nag doxe dogal ma lay seetaan lu bëri gis sa xol bu set ak ni ngay xëy na bu ci waxtaanee yow ak xel mu xol bi la may di ma ci di ma ci man am bi laa mandat mais am bi ci biir ambulant bi dama doon bu dugg ci benn kër fekk fa benn soxna mu provoqué ma ci wàllu jëflante ak moom ndax sama client la woon fa doon lu ma ko doon jaay lu bari di ñëw këram man daal semaine bi daal tegale di ma commandé lu bari waaye ci biir commande yi ma doon commandé na ma sama xel ñaaw dem naa ba ne kii ni defee ay commande yu bari ci man ngir bëgg jënd sama produit gëm naa ne daa am lu mu soxla ci man maa ngi doon ñaaw njort lu mel noonu daa may dégg. ngi lay déglu maa ngi lay dégg. waaw bi loolu amee nag bi ñu waajal jamono bi passé bi ñu waajal korité ma nekk ci am bi dëgër lool ma ñëw mu woo téléphone ne ma naa ko indil ay dàllu jigéen ma jox ko dàllu jigéen ñu jënd jëndee daal yi chinois yi di defar di jaay. Hmm. trois mille trois mille cinq cent yooyu. ma naa ko indil ci six paires bi ma ko indilee ma ñëw mu ne ñaata la ma ko daal yi ma ko ñaata la. ñu yëkkati xaalis bi fay ma dama faaw day ne day man ko te nga ma bàyyi ma dem rek comme que naan ña te collecté bi jub si te fi ne nii yu taxaw na te ñu dem di ji ko mu ne ma déedéet xaw nga xaar añ ci noonu nag man ma moo xam te moom comme que mag la ak ñun ñu doxee ci wàllu sutura ma ne naa toog yi may defal ak yooyu yëpp ma xalaat ne naa toog dafa toog ñu añ ba pare. waa ji baralal tuuti nan tey den yàkkamti daggal histoire bi comme xam nañ fi ngay terminer waaw mu gaaw rek ñun ñu jàll ci leneen. incha allah waaw ci gàttal naa ndaw ndaw e dafay chaque jour dafa xam sama coono yi nek nekk. utilise am mm. muy am-amam chaque jour di bëgg ma sekk moom wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg sekk naa moom. dëgg la. sekk naa moom su ma te yàlla tax na. Mm. sekk naa moom waaye daa bëgg sekk boobu di woy daa bëgg sekk boobu di woy te loolu arrangé wu ma. Mm. ok léegi nag dama ci doon sànq rek. Mm. te yàlla tax. Mm. nga wax ma ci sa xalaat lu ma a def ba génn ci te yàlla tax ndax moom ci am-amam lay sukkandiku. Mm. ngir bëgg ma di foowee man mi ci affaire bi damay dama jaar damay dem ba toog ba war a julli. dëgg yooyu damay damay tuuri ay xéwal dama affaire bi. Oh, day métti day métti loolu rek laa ci soxla. nga indi ma nga jox ma sa xel rek yow. Mhm, incha allah dinaa def. waaw waaye maa ngi lay masaw lii métti na de. Mhm. oh massa massa dinaa ci ñëw. Mhm. incha allah. kon ngeen di bàyyi xel ne jigéen ju bëgg sëy ak ki bëgg jëkkër du benn. fexe leen ut jigéen ju bëgg sëy ka jigéen ju bëgg jëkkër waaye nag droit la ci jigéen mu bëgg jëkkër parce que ku juddu ci ñàkk bëgg nga ku la dimbale ku la taxaw ku nekk ak yow waaye nag ku bëgg sa avenir ak sa ëllëg mën nga def loo xam ne tam dina la jëriñ kon loolu dafay am solo yéen jigéen ñi bëgg naa ngeen xam ne euh, kon su boobaa loolu dafay dafay dafay doy waar di fàttali ne mbës jot na miel bi yéen ñi nekk Europe yépp xam leen ne mbës jot na miel bi mu ngi koy jaay daw leen ngeen jëndi balaa muy jeex yéen ñi nekk Amérique yéen ñi nekk Amérique te di ma seetloo. Euh, baal leen ma man képp ku may seetal audio laa lay yónnee wala su ma la woowee enregistré ma man maa la may droit boobu du crime ci benn loi soo ko defee soo ko defee bu ma la fenee man wala ma fenal la yóbbul audio bi ci sumay noon nga ne leen ne fenkat la mënul dara dafay duul maa ngi internet cent dollar laay seete képp koo xam ne danga ñëw ma seetal la li ma la wax dara du ci dëgg jëlal enregistrement bi yóbbu ko ku la neex am na noon yu takku ba dëgër di ma xaar man te noon yooyu noonu gëm ne xaw ma dara benn dulkat la fenkat dañuy jël cent dollar jox ko ku nekk Amérique jox ko ku nekk Amérique na ko joxal Cheikh Ahmed sa tur sa turu yaay mu seetal la fen yooyu may fen ngeen jël ko teg ko kaaku xanaa du kaa kaa mu ngi noonu mën dafa am mënantu am man dama mën piir ku nekkul biir États-Unis bul ma seetloo mënuma seetal ku nekkul biir États-Unis képp fa waaye yéen ñi ci nekk te bañ ma dima wutal pexe da ngeen di ñëw ma lekk seen cent dollars ba pare tuubal leen ngeen doon soppe te du ngeen ci mën dara ndax seet buy dëgg waxuma pexe xel mu rëy de di bëgg fàllu jëluma la sa jëlma ma yi bari na daf ma énervé léegi jëluma la léegi ku mën seet su ñëwee di nga xam ne kii mën na mina rasul jëluma la ku seet su ñëwee di nga xam ne kii mën na su mënul di nga xam ne kii mënul Canada seetuma France seetuma Afrique seetuma États-Unis képp loolu laay wax dafa laay cheikh bi dama soxla woon miel pour jaayaat ko fii ci Canada am naa si ay clients su la intéressé d'accord maa ngi lay déglu intéressé wu ma jaayu ma la miel xamoo luy waral soo demee ci xàmbu soxla après baalu dafa xamoo lu borom 76 mënuma tontu sa message ndax xaw ma li ngay bind xamoo luy waral soo demee. xawma ko wax dëgg yàlla suma xam-xam nekkut ci loolu Seydina Omar moom moo yombal laaj mu ne nisfi ilmi laa adri genn wàlli xam-xam mooy xaw ma xaw ma mhm. topp suma di bind jël ma jël ma jël ma jël ma di ma harcelé nii bugguma ko ma harcelé jëluma leen bu kenn harcelé def leen ma ndànk su ma waree jël dinaa jël waaye topp ma nii rek jël ma jël ma yow xaaral ma bloqué la borom treize treize maa ngi lay bloqué de maa ko tey parce que li nga may bindal moo ma amaloon njëriñ bloqué naa la voilà xaaral ma ñëw bloqué waat sa bii xaar rek ma bloqué man suma whatsapp bi maa ko moom aja dema ok d'accord continue ku ma harcelé ma bloqué la si wala góor gi yow mi moom soixante-dix-huit huit cent six quatre-vingt-douze man damay jaay suma heure numéro bi wéef ci dix mil ma may la trente mille su live bi di jeex ma wala mais pare live ba pare wuyu la du ko def suma téléphone bi ku dul suma mbokk doo suma xarit ku ma woo danga may fay kum jaralul fay bàyyil ma suma téléphone c'est pas ku ko jëlee ñàkk kersa yi baax na ku ma mënta fay bul ma message koo xam ne jaraluma la nga fay ma dërëm bul bul dugg ci bul bul ma woo suma numéro bi du gratuitement de damay liggéey du ma toog deux heures de di wax balaa may wax ut sumay kaat déglu temps boobu ma koy def te jëluma ci dara weer bi dee ma war a fey luwaaye tey su ma amoon problème yéen ñii di ma seetaan ñenn ci yéen ñooy demaat d'accord mooy dafa rëy làmmi dafa foogoon ne toog Amérique muy nangam nangam nangam lu ne di ngeen ma ko yàq waaw soppee tey ñoo doon saaga démb te su subaa yi mën ngeen saaga saagawaat kon man suma bopp rek laay dox suma téléphone bii maa moom ku ma fay duma la jël ku ma fay ma wax ak yow munoo maa fay téel sa appel ak sa problème du suma problème ndaw si duggoon ci live bi te belle bi doon ko làmbatu belle bi ndeke mu ngi woon ci live bi woo na ko belle-sœur bi ci boppam woo ndaw si kaabaa ngay danse <laughs> laa ilaha illallah allo allo waaw Sèye moom laa doon waxal nii de bi may woo. loolu baax na mbaa réccu ko. dara. lu mu wax mu ne. nee na ma joxe yëpp dégg na ko. Mhm. loolu la la ma ma. yaa dugg si live bi di raconté léegi liñ la wax na ko def yëpp dégg naa def attention waaye du tax ma bàyyi la. Ah. man loolu man dafa liggéeyi man waragul wàcc léegi min ñu la war a wàcc. Mhm. nekk moom mi ngi seetaan live bi. loolu baax xaaral ma woon sax si live. bu ragal loolu loolu baax na xam nga lu tax mu baax. moom xam na ne léegi exposé nga ko ci àddina léegi woo bi mu la woowaat dafay prouver ne moo ko def def googu mu ko def nag live bi dañ koy dagg-dagg yëpp ngay jël wax ko sa jëkkër léegi deal bi bu ñu lay fase ñu fase la ñu fase la ci dëgg bu ñuy téegal ndeyam moom mu katt ndeyam génn kër gi ñu katt ndeyam lesbienne bu katt ndeyam bi mu doon mu dem yow nga sëy sa sëy li muy def du diine du lislaam du aada saaga yi nag maa ko tey comme mu ngi seetaan moom laa saaga moom laa bëgg mu dégg saaga yi jigéen juy sëy soo bëggee ca lesbienne tubaab bi bari neen lesbienne demal nga def ko nga bàyyi doomi jàmbur du aadaam du diineem bëggut ko. Ah, en tout cas. c'est pas méchant. yow lesbienne nga yaa ngi may seetaan yaa ngi may seetaan lesbienne nga am nga ci droit ñun amuñ ci problème amuñ ci problème de yaa yàlla kenn du la juger suma yoon ndax du suma bajo katuma katuñ ma waaye comme lesbienne nga am nga ci droit demal nga uti lesbienne bari neen France nga bàyyi jabari jàmbur kii jullit la aadaam nanguwut ko nga respecter principe am moom ci boppam lii méttiwut waaye daan ko seetaan naa laag li ma wax du tax ma bàyyi laag danga foog ne yow da nga ëpp doole nit ñi parce que lesbienne nga da ngay am droit waaye amal jom nag comme yaa ngi seetaan sëriñu nante nante du nekk lesbienne wala boo ko doonee day yem si sa bopp bàyyi nit ki mu sëy yow fi sa mag di kattee war nga faa yow ba léegi damay caabi sama néeg. ça que yow sax yow sax amoo problème ak ndaw si yow yow mi may seetaan nii amoo problème ak ndaw si yow sax yaay nga respecté wul ndax mu ngi feebar nekk mag. nga xalaat sa yu bon yi gàcce gi su ko dalee mu dee yaa rey sa yaay waaye sa mag ji nga bokkal benn ndey mu am jabar di laal bu neex ba am ci doom yow nga ne dangay laal yow respecté woo sa famille yow amoo problème ak ndaw si yow yaa tekkiwul dara. yow mbaa enregistré nga appel bi. waaw enregistré naa ko. merci beaucoup. yow nante nga. yow man daf ma woo ma comprendre ne sûrement ni euh, dafa dégg live rek moo tax ma enregistré ko. léegi li ci des. comme ah. jox naa la stratégie. mu mhm. mu bettuñu ci ci ci live bi man dama lay jël ci ron lu neex. d'accord. am na magistrat bu fa nekk. magistrat mhm. Kebbe bu France boo ko tàppee internet di nga ko gis rakkam laa takkoon. maa lay booleeg moom di ngeen dem ci yoon ba fu mbaxana nekk parce que harcèlement sexuel la la def. tàpp sa taat yi fekk la ci néegi bëgg a tëdd ak yow harcèlement sexuel la day ci kaso. moom mu bal rek baa mu dem moom su xalaatul ndeyam ji ko jur bul xalaat ndeyam sa goro bi juru la. sëy la booleek doomam bu tasoon dootul doon sa goro li nga am jom am ngor am personnalité bay xalaat sa goro moom doomi xaram ji moo war a xalaat yaayam te bàyyi la yow lum rusut mm-hmm. bu ko ragal lum rusut bu sa goro daf la jur sa goro su dee goro nga ñàkk rek di luy problème bi beneen goro mën nañu mais moom yaayam benn la te yaay duñ ko remplacer bu rusul yaayam tëdd ci mm-hmm. feebar ja xam ne moom mu ngi ok cokkaas moromi jigéenam yemul ci moromi jigéenam mu ngi cokkaas jabaru magam yobu ko rus ku la rusutu saaga bu rusa fay moo waay mhm. xoolal enregistrement boobu nga wax moo jëkkër ñi mun na nañoo génnee sa téléphone danga ko yónnee ñaar ñoo wóolu supprimer ko sa téléphone pour boo ko soxlaa ñuy joxaat la ko waaw d'accord bu ñu la waxee rek nga ne leen ne dama doon wax ci live bi rek loolu sepa pas vrai wu ma ko fas sa yaa ngi dégg. da koy ko ñaar ñoo denc ko far suñu waxee nga ne leen man aw ma ko dama doon wax rek. loolu laa wax loolu kay bañu ma bi mu wax xam mën na la jekki ne da nga ko te ko tubaab lu dafa sew. yow da nga ñaari nit ñoo wóolu ba pare suppi ma ko suñu waxee nga ne waxi live la woon rek aw ma ko fu muy mujj. d'accord li ci des nag ci ay diila la ci pexe loolu maag yow la ci ron du fii. waaw naa yal na sa jàmm yàgg yàlla barkeel sa sëy bi. allahumma ngor gi nga am ba bañ mu làmb la. ba seexlu ko mu tiital la nga bañ yàq mbokk ba ñëw wax ko fii yàlla di ko dégg yal na la yàlla jàppale te taxawu la bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. bi himati yaa man ashara al jamil walam yuaxis bil jarirati walam yahtika sitra ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع كل المغفرة ويا باسط اليدين برحمته ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفي ويا عظيم المن ويا مقل النصرات ويا مدن من قبل استقاق يا رب ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تسوي حقيقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار incha allah yàlla dina la sàmm te ndam rek ngay am ci moom ba fu mbaxana di mujjee benn nag du am ndam ci yow mukk billaahi wal su fekkee yàlla rekk nga gëm ba bañ lim la bañ loo fonk sa sëy topp sa jëkkër bañ a yàq mbokk billaahi yàlla dina la may ndam ci kanam doo ruus mukk wallaahi waaw dafa yoo xam ne jaaduwul nag am lu rafetul Tu m'énerves quoi ki merloo na ma waaye kat sa naan maa ngi seetaan live seetaan live dama den la faale ñun seetaana seetaanal ba suba doo fi dégg dara lu la neex yaa moom sa bopp nekkal ndey lesbienne ba mu neex la du suñu affaire waaye bàyyi nit ki mu sëy sa jabaru mag la rusal sa yaay sa mag amoo jom xamoo sa bopp toog sa bureau di setaan di menacer nit ñi di nit ñi de laa faale yow mackati bajo bi nga doon yow na nga def waxal balaa ma lay sippi suma yaram bu tàng bi ah, moo gën de nga wàcc suma live bi yow amoo jom amoo ngor amoo xel hmm? di seetaan live bi yow Rousseau nga waroon a woote jéggalu waaye naan dégg naa ko yaa ma exposé di duma la bàyyi nangam naam dégg naa plan yi plan yooyu nga dégg yooyu ndaw la par la force dañ lay tegal yeneen plan te dinga ci tombe pièce yow yërëmoo sa yaay yërëmoo sa yaay ji feebar amoo orma ca sa mbag nga dem katt ndey sa sëy bi nekk fi yëfi doomaram ba tas ñu ñaf sa ndey indi la France nga war a bàyyi sa mag ak jabaram Rousseau sax sa doom yi mag yi jooy nga koy tàpp ci waañ beeg def fu nekk màcc kati bajo bi nga doon toog fii naan nga am looy wax imbécile nga rek yow moom dof dof lu sa bopp rek ba ma am sa photo sa tur yow maanaam moom gis nga xale bu jigéen bi soo ko defatee dara wala nga wax ko dara maa ngi numéro yaa ngi may dégg yaa ngi may seetaan gis nga boo ko defatee dara sa photo lay jël ak sa tur sa numéro exposé la ne yaay bëgg katt sa jabaru mag te rusoo sa yaay sa ex jëkkër bi nga tàggoon dinañ xam lu bon li nga nekkee di nga weer sa bopp yow continuer rek waxaatal xale bu jigéen dara rek du da ngay bëgg a menacer rek menacer ko rek yow di nga xam ne lesbienne dëgg cagaay baayam yow defaatal kii dara rek traumatiser ko rek France dafa sedd te fii nit ñi dañoo gaaw am dépression loolu yëpp xalaatoo ko nga nekk ci lu la neex di def lu la neex di menacer ni ñi naan ay gis naa la dégg naa la yaa ma yóbbuwoon ci live bi moo la indi ci live bi parce que amul xal xalaat dafa ragal xamul nu muy def moo la fi indi kay dafa la naqari waxaat ko dara rek salaamaaleykum allo yaa ngi mute appel bi. Hmm? fàtte ba bëgg a dee doo bàyyi nit ki sëy toog sa bureau noonu wi ngay wàcc wàccal ba dem wax ko dara ci kër gi rek allo. allo. oui ma chérie def. Oh, maa ngi jàmm yow nag. alhamdulilah maa ngi ci a baax. Mm-hmm. waaw su jarbaat lu muy jooy bàyyi ko mu jooy de bu ko bu ko bu ko yuuxu de bàyyi ko rek mu jooy bàyyi ko mu jooy naturellement lan lay jooy mu ne. lesbienne yi amee ngeen ñu waay yéen nekk leen seen lesbienne rek ñun amuñ problème ci seen lesbienne amuñ problème ci ngeen dagg seen koy nekk góor jigéen amuñ problème ci ngeen nekk góor jigéen lu lépp du suñ problème ñun suñ problème mooy suñ bakkaar yi nañu ko yàlla di jéggalee ak ni ñuy def ba dawal ci oto yi takk suñuy jongoma yu neex nekk ci jàmm ñun problème yii leen am nekku leen suñ combat waa LGBT billahi doo leen suñ combat na leen yàlla dolli jàmm ngeen di gën a riche di gën a am amuñ problème ak yéen de ñun <laughs> problème bi ñu am mooy suñu bopp. mais nag doo leen ñëw ñun ñu bàyyi leen seen bopp ngeen nekk ci lu leen neex man xeexuma lesbien xeexuma góor jigéen su ma yoon ci yéen su fekkee yàlla rek laay waxal bàkkaar yi ma dem man doy na ma man man Cheikh Ahmed su may bàkkaar rek su ma liste bàkkaar xam naa malayka <laughs> rek wadal nañ ma bàkkaar yu am ni inama sabila yooyu laay réglé bu dee mbiri àddina naa fexe ba gën a riche gën a am ñun lii leen tal waaye nag bu dee màccikati bajo ngeen bàyyi leen bajo yi bëgg koy ñu kattante te jàmm am nag yaa xëyti li méttiwul di kii bañ na ko bay sëy ak sa mag sa yaay a ngi feebar mu bañ koo wax ngir sa yaay am jàngoro ba dee ngir gàcce lii yëpp mu ngi koy sóoraale yow nga koy menacé ginnaaw bi ñëwee suma laay ki yow yaa yow yaa dugg ci suma geer barki sëriñ Bamba Mbàkke lekk nga lekkatu geer nag yow <laughs> yow de bu live bi jeexee ma ne ñëwal nga wax sa famille seetaan ko lu seen yoon man kaa bu may traité ci suuf danga may fay pour ma déglu mais ñëwal ci live bi nga wax ma conseil la gratuitement mu jeex non waaju baax dama mer waay yow tamit lii kenn mënus koo dégg yow yaa ngi nekk sa lesbienne nit ñi amuñ ci problème bàyyi ne la sa lesbienne nit ki mu ngi sëy ak sa mag nga di ko sonal mu dugg live nga ko naan dégg naa palaay bàyyil ba ma pare ci yow bàyyil ba ma pare ci yow ci ngay comprendre yow xamuloo sax nu mu demee di nga nekk sa lesbienne di ci bajo suñ yoon du ci nekk mais di nga bàyyi nit ki mu sëy di nit ki moom dinga ko bàyyi mu sëy sa mag lu neex su fekkee katu guddi ngay bañ a dégg par la force danga koy dégg ngay mer sa cokk ngay waaj a mer sa cokkal ndey waaye dinga ko dégg bàyyil nit ki mu sëy loolu laam lu ma lay wax ma tëj entre parenthèse o jàll ci leneen parce que dooma ma énervé énervé ba ma yàq suma life duma la ko may mais par la force di nga dégg sa mag di ko bokk jolle lu neex jabaate ba bëgg a di kenn dafa mës a gis merloo ma torop allo oui kilo gu mag gi naka mu ñuy char baax Aïcha Thiam jëlal ma wàcceel ma yabaate su ndey naan ay dégg naa waxtaan wi dégg na nag déggal yëpp ba xam ñun den la lijjanti wala lijjantiwuñ la yéen ñu def demande wàcc leen ñëwaat réseau bi baaxul ay sa mu ngi jël mais mënta dem nan la nan nit di mën a sëyee sa mag hmm? nga billaahi bàyyil nit ki ci jàmmam bàyyil nit ki mu sëy ci jàmmam soo bëggee jàmm sa sutura toog àdduna duñ la xam duñ la xamal bàyyil nit ki ci jàmmam wax naa la ko bàyyi ko ci jàmmam mu sëy bàyyil nit ki mu sëy defut la waxut la yaa koy def mu lay muñal buggut a yàq mbokk bàyyil nit ki mu sëy wax naa la li ma la suma bopp bi sax mu ngi métti instant bii nii bàyyil nit ki mu sëy baax neen dem rek nekk ci rek yow Fatou Sène kii daf ma merloo waay Aïssa Thiam ki fi duggoon léegi bul ko yéegalaat de ñëw na fii nuyoo noppi na pat bu mu fi yéegaat xaw ma kan la bu mu yéegaat fii yabaate ma ne ngeen ngeen baal ma ko dinaa ñëwaat guddi ñu ruube ma réglé cas bi dama mer baal leen ma loolu maa ngi leen di tàggu jërë ngeen jëf yàlla na seen jàmm yàgg ba ngoon dinaa dineen ruube ma leen ma loolu ma dem réglé lii may leen